nulala doku betiata Gambia nkala doku betiata Gambia Talents TV Gambian Talents TV ñu nu le la Gambia Talents TV ñu nu le la Gambia nkaa la dookuwoo betiyata Gambia Talents TV ñu nu le Gambia Talents TV ñu nu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 koye ñulle naata ka musicolu kiɗimandi ñulle naata ka atisolu kiɗimandi Talents TV ñunulala dokuwo seneyata Gambia Talents TV ñunulala dokuwo betiyata Gambia nkala dokuwo betiyata Gambia Talents TV ñunulala dokuwo seneyata Gambia Talents TV ñunulala dokuwo betiyata ye Gambia nkala dokuwo seneyata yo Gambian talents tv jalam alnal badi malam nene jeli suso bintele bale jantonko alkal gambian talents tv la moy every day and night tv la mi yalla nako mashallah ila diamol kabet yalla la promotion kabet yalla wow wow wow ala baraka bake ngali yenne o ko ñulle naata ka musicolu kidimandi ñulle naata ka artisolu kidimandi ñulle naata I'm a money man. mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ku ci wax bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet aju ngeen jéggalu ci loolu nag képp ku ñuy déglu happy new year in advance to all of you seen mbokk seen xarit Pa Ousman Joof ànd ak yéen fii ci Gambian Talents TV am nañ mbégte ak kontaan pour indil leen programme bi is gonna be a special new year's um, programme di ko xoos nag di man suma jëmmi boppa ànd ak suma doomi ndey suma xarit di jeeg sima Haidara nekk fële sa Belgium ah, of course nag ñu ngi am seen team bi ci Banjul nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi dugg ci jamono ji pour waxtaan ak yéen Aida Kebe nekkal ñu ci studio bi foofu si Gambia jeeg nuyu naa la. Ah, la ah, waaw sant bi rafet na.

da yàgg fi loolu ci wér loolu rek laa lay ñaanal ba ci kanam dina ñëwaat nag tey moom du yomba It's 11:48 p.m. In the next 12 minutes, ñu dugg ci countdown bi ci Gambia. Um, 2020 lañ wax ñu ngi naan bye bye year with a difference. Jek soo doon xalma yi am um, xayma wala wax askan bi yow si sa gis-gis lan nga ñu mën a wax rek ci 2 minutes ci 2020 balaa ñoo dugg connect ak ñi nekk Banjul. waaw balaa maa waxagum dara sax dina géem a wax ne xappi uh, new ya parce que ñu ñu éega si new year ba pare uh, di wax ne ñëpp happy new ya uh, di ñaanal suma yaay jooju mami sira sira lii mu baabu samba di la wax happy new ya ya sa njaboot yëpp di wis waa Belgium yëpp happy new year di fatikinte tam Germany di wis ñëpp happy new year képp ku ma wax sa waxuma sa tur suma famille ñi nekk Gambie ñoom Bun dara ñoom Sarata ñoom Sifaay ñoom ñëpp maa ngi leen a wis uh, Haidara Kundaay ji yëpp maa ngi leen a wis happy new year Pa Ousmane 2020 um, uh, di su ma ko buggee tënk rek dinaa ne 2020 uh, naxar la 2020 bi nga xam ne ay xat-xat am na si 2020 bi nga xam ne ñu bari ñàkk nañ seen bakkan ñàkk nañ si ñu bari si corona bi ñu bari ñàkk nañ seen liggéey si corona bi ñu bari itam um, seen lu bari tënk na si corona bi niñ daan toogee di. Eh, tey boo ko seetloo sax nuñ daan eh, bokka di di nekk together di def happiness si um, si eh, New Year Eve bi loolu yëpp mënut am christian suñ mbokki christian yi mënuñoo célébrer seen seen seen um, Christmas bi ñun itam tobaski bi tam noonu wan ya ñu ngi si xat-xat boo xam ne um, yan na fi am te ñu ñëw ak li nga xam ne moo gën ñu gis ne suñ jigéen yu bari su waale jigéen parce que jigéen la jigéen yu baree bari ñàkk nañ seen bakken si bu ñoo am doom euh, fànn boo dem rek Pa Ousmane am na lu euh, métti lu ñu daal suñ kilifa yu bari wàññeeku euh, twenty ñu am si ay te jànkonte Gambia si boppam jànkonte ak strike yu bari jànkonte ak ay coow yu bari political crisis yu bari am yu bari moo am Pa Ousmane na ñaan rek mu nekk loo xam ne du na fi géej te bu mu amati 2020 dafa ànd ak ay xaste yu bari ay saaga yu bari si social media bi Euh, dem lu baree bari xew lu baree bari xew euh, kon 2020 moom yan na fi géej bu mu ñëwaati waaw ah, li nga wax dëgg la jeeg 2020 year with a difference la Gambia door nañ ko 2019 sax lañ ko door mu dugg si dafa mel ni di past three four years have very rough for Gambia ndax 2016 2017 ci doorin bi si lañ amoon am impasse political impasse impasse after the election Yeah, jàmme dina dem du dem every day ñu eewoo bu ees rawatina Fridays nag moom la rab yi gënoon a bañ ñu jógee ci last year obviously Um, it was three years jot na on the 15th ñu bari mënuñu woon a dem Banjul last year three years jot na coow li nekkul président Barrow ne du génn du do du joxe nguur gi coow li nekkul ci jamono jooju noonu ñu ne by January 6 of course si lañ three jot na amoon seen major demonstration be after the one they did on December 15 twenty téye woon leen arrest ñu bari ñoom Pa Modou Bojang coow li course jamono jooju So I bi ni mu dooree last year sax moo neexu 2020 gii xam nga kon en woon xam na lu bokk antan te ñun dañ dul bàyyi xel lu ci bari waaye 2020 ni mu dooree by the six laa la wax de three jot na attaqué coow li takar naa si ñu jàpp ñu bari deal with that three years three years bàyyil three years indil three years You nekk ci coow February independence ak yooyu ci lay jëfi commencé nag di feeñ ndànk corona génn na ndeke mu ngi woon China depuis décembre googu ñi dem China yëpp commencé di tukki benn benn nag muy wóor Gambia nag march 17 ci la fa corona egsi ci liñ wax first case registered case was on march 17 ndax egsi na fa balaa loolu oo egsi wuñ fa it's a different story ba ñu bëree fi xew jeeg tëj nañ border bi was the first thing so remember Mayo that March 17 or wiki March 17 boobu we did sentiment soo jekk am ku kóolin si show bi ne moom mu ngi dem uh, mu ngi jógee fan Europe ne Morok amna na sénégalais yu bari yaa ngi fàttaleku loolu mu ne amna na sénégalais yu bari ñoo xam Sénégal tëj nañ seen border bi seen air am am am space bi mënuñoo dugga foofu noonu gars yi start di transité Banjul yaa ngi fàttaleku. dégg la maa ngi fàttaleku loolu. after mm-hmm. euh, loolu nag bi rek si lañ tëj border bi ñun tamit. ñu commencé ñu tëj school si tëj jàngu yi tëj am am am am public gathering si tourism bi get affected everything and life change for everyone else yu bari yu doon war a xew korite ñëw na ren kenn celebratul korite kenn celebratul new year waaye suñ technicien bi rek su fekkee ne ñi nekk ah, am Banjul am nañu si pare rek ngeen wax ñu am su ko defee ñu indi gaay kenn kenn if they are available to actually log in New Year's bi lañ waxtaanee maag jeeg ñoo fi nekk we have seven more minutes pour twelve o'clock jot in Gambia we have a team Fat Samba ak team bi ñu nga fële ca Sénégambia dinañ leen indil li fa xew ni ma ko waxee ci gannaaw ñoom aji bintu ndaw ñu nga foofu sa Westfield dinañ leen indil li fa xew ñoom Ramatulaay Fay ak Nabia Sarr ak um, uh, um, uh, uh, Mariama bi Fati ñu nga fële ca Baara Sirifo Fay mu nga Basse Mouhamed Mbaye Garmi mu ngi And we also have Nyom Sanyang at Nyenem Yineka, Felisa Birkama. It's a whole team. We will be showing you what is happening. Jack, Balanyo Dugal Gairek, it's 2021 officially. Yoya Yunjaka Noki. 2021 yaa ngi doon ka nokki lu mel mais ñu si ñun eggal waaw ah, foog naa li ñoo njëkk a wax rek mooy hope la ñoo duggee ñëpp ñu ngee ak yaakaar ñun ñëpp ñu ngee ñaan ñaan ñaan lu munta lu munta antu rek du am parce que ñaan du am solo la ñu ngi ñaan tam yàlla euh, wécci lépp parce que mm. gis nañ ne corona bi am na lu baree bari wàññi nañ ko ñu baree bari ñàkk nañ seen liggéey Pa Ousmane ñu mm. bari tam euh, jëkkër jabar yi euh, parce que xam nga toogaay bi ak lockdown yi jëkkër jabar yi nga xam ne duñ daan am time duñ daan hmm. mun a toog benn place xamante wu jikko yi xëy na ñu daan muñalante sax te yu baree ngay yëngatu parce que dëkk bi toog benn place bi am na ñoo xam ne baax na si ñoom am na ñoo xam ne sonal na leen am na ñoo xam ne mënuñoo gis seen jëkkër yi am na ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñàkk seen liggéey yi kër yaa ngee tas parce que lan la li nga daan mun a fay en tant que góor munatuloo koo fay ñàkk nga sa liggéey ñi am seen jabar yi Gambia munatuñ leen a gis lu bari ñu am seen jabar yi Gambia tam ñu ngi am seen problème yi nga xam ne mooy problème yi financial crisis loo daan yónnee sam njaboot Gambia munatuloo ko euh, lu ñoo ñaan rek man si lu am naa hope am naa yaakaar te foog naa ne 2021 bii nii ñun ñëpp nañ booloo parce que tam mbooloo mooy doole te xol yi buñ bokkee ànd rek foog naa yàlla euh, dina def yëpp ànda yàlla nag subhaana wa taala moo lépp yan nañu ko munal euh, di leen wax ne rek lii hope la yaakaar te ñu ngi ñaan yàlla yan na bum tas suñ yaakaar 2020 euh, bii nii lépp lu ci safaan rek yal na ànd ak moom lépp luy jàmm ak salaam yal na ko yàlla def rek euh, mu antu di leen ñaanal nag ngeen euh, màggal ko at yu baree baree baree baree baree képp koo xam ne yaa ngi seetaan Gambia Talents képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ñun yaa ngi wéet wala yaa ngi am sa dépression wala yaa ngi feebar wala foo munti nekk rek ñu ngi laa wax ne um, happy new year dila la ñaanal bu dee da nga feebar yàlla may la wér bu dee da nga nekk si ay njaxare wala nekk si naxar ñu ngi lay masawu di la wax ne yan na ko yàlla teggil ko sa kaw ñi nga xam ne ñu ngi sëy ak seen borom kër yi ak seen jabar yi yan na leen yàlla ak seen borom kër yi ñi nga xam ne nag amuñ jëkkër yan na leen yàlla may si 2021 bii nii ah, Gambia Talents yan na ko yàlla def teg loxoom 2021 ah, bi ah, ñu am ci lu baree baree baree bari te lu bari dina ñëw nañ yaakaar la te Gambian Talents man yaakaar laa ci am te xam naa ne Gambian Talents dina ko def parce que ay ndaw ñoo fi nekk ah te ndaw yi itam foog naa ne pare nañ ñu ngi si soo bàyyee xel ñii ñu ngi si Sénégambie bi ñii ñu ngi si base bi ñii ñu ngi fu nekk ah kon Pa Ousmane xam naa xale yi buñ paree rek ah, ñu ñëw jàkkaarloo ñun won ñu li xew lu am solo la parce que yàkkamti nañ pour gis leen yàkkamti nañ pour xam li xew Gambia man man ak suma morom ak keneen ak keneen ñëpp ñëpp a ngi am yaakaar ku gis la xew Gambia mënuñoo hmm. dem ñu bari jënd nañ seen ticket yi mënuñoo dem Paos waaye lii moom eh, opportunity la pour ñëpp xëy na tey ngay seetaan sa dajeeg sa bro gis sa broda si télé bi wala sa raka wala sa mag kon donc nañ déglu xale rek ñu seen lan la ñoo indil. waaw Mohamed mbay Garmin duggal si nga ndax nekkuloo ci kër gi Garmin suñ technicien bi su dee Garmin duga si na aadal ñu ko rek. wala ñen ñoo dugg si si jamono ji zir waa Westfield jéeg two minutes to twelve o'clock two minutes moo pour twelve jot foofu ca gàllankoor. waaw na xale yi géem a ñun loolu moo ñu ñor. waaw naa ñu fa nekk on mute seen bopp ak ngeen dugg si su ko defee ñu gis leen rek ñu wax waaw ba pare suma jëkkër sax moom tam si la midnight am moom it. Angleterre waaw one minute two more minutes ok Aja Bintu Aja Bintu ñu ngi leen ay déggee on mi ñu gaay rek waaw ñu ngi lay déggee bindu fan ngeen nekk nii waaw ñu ngi fii si traffic light waaye nag gis nañ ne fii si traffic light mu ngi xala a wéet melu mel ak kii passé jamono ñu toll nii soo xoolee traffic light nii um, mu ngi xala daal nit ñi bëriwul comme lu ñu daan bëri at yi nga xam ne moo fi passé. Hmm. damay setan ok dafa melni ñakane aji bintu ok wow, traffic light ane ka nono ok waaw interesting lan mo am xew traffic light aji bintu tay lu fa xewut tey daal traffic light Dal mu ngi nii melut comme num naan mel at yi nga xam ne moo fi passé at yi nga xam ne moo fi passé daal traffic light boo fi duga see ñëpp xam nañ ne time bi nit yaa ngi fi groupe mu ngi fees def ñu ngay expect ne fay woot si mu ngi war daw pétal yaa ngi taal nit ñaa ngi war waaye dafa mel ni daal happiness bi nga xam ne moo fi daan nekk nekkut fi at bi jamono juñ toll nii place baa ngi wéet maanaam boo doxee doxee nañ fi nga xam ne mooy ba fi nga xam ne mooy traffic light waaye nag mbedd bi dafa wéet trop pas Ousmane jamono juñ toll nii 2020 bi daal dafa mel ni daal mooy loolu. waaw macha allah kon gis ngeen li xew traffic light um, one more minute pour ñu dem rek ñu dem Sénégal bi ñoom Fatou Samba ñu ngi fa. Um, technicien indil ñu li xew Sénégal bi rek su fekkee ne gars yi fa. Ajibi to hold on. Countdown be happy new years to everybody. nañ gis luy Sénégal bi rek ndeysaan um, su dee pétard am we hope so but happy new Year's to everybody it is um, 2021 officially is um, new year suñ gaay yi Gambia yéen ñi leen leen ci seetaan ci ci waaye nekk ci ñeneen ci koñ àddina penku ak ngopp wala ngalabu indil ñu luy xew Sénégal bi rek noonu ñu ngi dégg pétard yi indil indil ñu ko si big screen please indil ñu luy xew Sénégal bi please waaw dafa mel ni Sénégal bi yaa nekk noonu ndeysaan Technician, jàppale ñu rek please nga gën ñoo indil images yi yes ñu gis ni xew fofu wala dang may may mo seetaan tamit ñu do ni pétard pétari nonu. Sénégal bi yaa nekk nonu ndax oh, koku mo Mohamed Mbaye Garmi la fofu ci dakaro Garmi xara ñu indil wa Sénégal bi moy second image bi indil ñu second image bi waaw second image bi lañ soxla Wow o oh, fofo aji bindu la wa wo fofo wa westfield la ñoom ñooy sa sànni pétard yi noonu pétard yooyu westfield la ndeysaan happy new midnight waa sénégal yëpp ba si wuñ wa gis ngeen pétard yi westfield yi ya, ndeysaan Um, this is Gambia Talents TV again Ame. Thank you very much, Ajibento. We appreciate this. Uh, Kuti wa ene karek si nyenen tiko ni aduna nyungle na indil ñu foot image bi ñu am Mohamed Mbaye rek bu ci Ndakaaru ñu seet la xew Dakar indil ñu garmi garmi nuyu naa la indil ñu foot image bi foot image bi indil ñu foot image bi waaw ndeysaan gis ngeen ni xew Westfield wa senegal bi nga xam naa seen connexion bon rek ak wa Bara dinañ dugga ci ci kanam ene um, ñu gar ñu please for image bi um, waaw gar lol don na gar mi nuyu ñu la ah, ah mag lay fay Pa ah, Ousmane Diouf di nuyu ah, Sima ki tok sa wet di nuyu our wonderful viewers ñu ngi fi ya Ndakaaru Njaay gis ngeen ko fii mooy Cissesse Jaal Diop ah Sangoumar fii mooy Cissesse fi Euh, bu 31 décembre daan am muy li ñu wax US euh, Eve da ngay gis fii dafay bëri des fois Youssou Ndour daf fiy tëgg wala ki nga xam ne moo di wala euh, Wally Ballago Seck le Golden Boy wala Sidi Diop la Prince wala ñeneen ak ñeneen waaye gis ngeen tey jii ñu bari kenn nekku fi sax waaye ba tey gars ñu ngi insiste di taal ay pétard yaa ngi gis ni ngay gis ni yëpp ay pétard loo xam xam ne gars ñu ngi koy taal Ndakaaru li fi am mooy Euh, ñëpp ku nekk ñu ci bari sa kër nga toog pour def li nga xam ne moo di fête bi ndax dañuy wax restez chez ndax euh, li nga xam ne moo di euh, coronavirus bi dafa gën a lëmbee fi nga xam ne rek moo di ndakaaru loolu moo tax ki nga xam ne moo di gouverneur bi nga xam ne moo nekk gouverneur bu Dakar dafa wax sax tey jii bu min wi jotee bëggul gis kenn fi nga xam ne mooy ci lieu public yi ñu fay nekk di taxawaalu wala difa fa def naka su dul noonu waaye comme que ñun ñooy bëtu askan wi ñooy tànku askan wi ñooy nopp askan wi Euh, fu nekk rek dinañ fa dem ngir lu leen la fay xew jox ko suñu téléspectateurs yi euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy euh, seetaan laata loolu nag dama leen di wax rek happy new year bonne et heureuse année ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan our wonderful viewers di leen ñaanal at moo xam ne atum naataange la atum sutura lépp loo xam ne rek doonoon na ay jafe-jafe si deux mille vingt bi yàlla na doon xéewal yàlla doon mbégte si deux mille vingt et bi nga xam ne moom leen dëgmal ci waaye fii mooy CICES foire bu Dakar li ngay gis ne le amuñu accès pour dugg ndax dañ ko daal di tëj ndax dañ bañ euh, nit ku fa dugg waaye moom ngeen di seen noonu foofu la euh, pétard yi di jolle euh, foofu noonu nga xam ne foofu la kii di waykat bu mag bi di Youssouma Jigéen Ndour daan tëgg ak ñeneen ñi Pa Ousmane Diouf xew fi nga xam ne rek moo di Ndakaaru Ndakaaru gis nga ko Ndakaaru ak mbas mi Ndakaaru di fête sans ak li nga xam ne rek moo di ay way wala ay musique ak yu Euh, loolu daal moo am fii nii Pa euh, euh, Ousmane Diouf. jërëjëf Garmi dinañ dellu si waat ci yow rek nga taaxeerul dinañ ñëwaat ci yow rek Garmi. am nga indi ñu ñi nga xam ñoo nekk foofu sa Sénégal bi su dee dugga si nañ am ndax aji bintu moo ñëwaat rek foofu sa Westfield ñu ngi leen ay bëggee képp ñuy déglu di ñu topp di ñu seetaan. um, live and direct maa ngi fii si Seattle Washington is 4:04 p.m. fii ci Washington ba dem ñu ngi toppa suñ team bi ci Gambia rek um, indi waadal ñu aji bintu rek wala waa Sénégambia su dee dugg si nañ um, nga jàppale ñu rek please indil ñu waa Sénégambia su fekkee ne dugg si nañ. wala ñi nga xam ne ñu ngi baara wala base ñu seet lan moo nekk foofu is 12:05 pm am am rather ci Gambia si jamono ji ak yeneen places if you are just tuning in this is a live coverage of the special New Year's um 2021 uh, uh, uh, ah, commencé nañ ko ñun nag notteeguñ air bi waaye ñu nekk foofu rek technicien please indil ñu kenn si ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekka Banjul ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen ah, santa ci seen déglu bu rafet bi ak bu rafet bi technicien nga indil ñu kenn si ñooñu rek please wala jeeg ok aji bintu moo ñëwaat noonu aji bintu ñu lay nuyu lan moo xew foofu jamono bii nii loolu lañ bugg a xam waa aji bintu ci jamono bi waa jeeg nga continuer rek wax ak gars yi naka la AI 2021 bi mel jeeg nga continuer wax ñoom waaw um, aji Bintu waa Sima waaw naka nga gisee naka la 2021 bi duggee ak naka nga naka la mel ci dëkk bi naka la ko ni ñi célébrer am jamono ji ñu toll nii mun naa wax ne fii si trafic mu ngi xala dool tuuti even though yaa ngi daw ñu ngi enjoy euh, ñi nga xam ne ñoo fi jot a nekk waaye feesut comme nu daan feesee melut ni comme ñu iye nu daan mel dafa mel ni comme at bi niñ ko commencé niñ si jot a duggee nu mu doolee woon mbir corona bi nga xam ne moo ñëwoon dafa mel ni dafa xala yëngal nit ñi ba tey li nga xam ne mooy coronavirus bi ñu si xel nit ñi ba tey ba nga xam ne taal pétal bi nga xam ne guddi bu jotaan da daan fees tey ah, jamono juñ toll nii buñ seetee environnement bi nuñ mel ñu ngi gis nit ñi ñu ngi xala wàññeeku torop ak doole Wow. suñ xoolee jamono ñu toll ñu gis nañ fi nga xam ne mooy ah, trafic laay da daan fees def képp koo xamante ne dañ daan ñëw ah, di nga place bi bu baax da daan fees def def def def waaye ndax di nga mun a am ay nit yu euh, xëy na boo dajee garmi tam boo amee garmi bu fekkee mu maa dégga wala aji bintu koo su dee am ngeen ñi ngeen xam ne war ngeen a mun a waxtaana ñoom tam konaa dina ci baax ngeen nit ñi euh, pour ñu xam euh, naka la gaay yi di dundee 2020 bi bi Euh, di leen wax ne rek euh, joy euh, kii di leen wax ne bonne heureuse année suñ mbokki sénégalais yi ak suñ mbokki africaine yi yëpp di leen wax ne bonne heureuse année à tout le monde ñu ngi leen a wax happy new year ba tey rek di bég di kontaan di la am yoo garmi di la wax ne seen nga ne ndakaaru fu mu ne nii wéet na lool ndakaaru dama ne monde bi yëpp a wéet parce que mu Europe muy àddina bi yëpp ku nekk mu ngi jànkoonteeg doom bu góor bi nga xam ne kenn xamul kan moo ko jur géttéere na lëmbe na yow fu mu nekk nii euh, ndax boo di nga am koo mun waxal si yoon bi laaj ko naka la dundee ak yooyu soo leen ñu munee woon yooyu itam dinañu neex torop aji bintu waaw sima waaw su fekkee ne mun ngaa waxtaana askan bi tam ñoom tam ñu wax la seen xalaat si si 2021 bii nii dinañu neex torop parce que bëgg nañoo dégg suñ mbokki gambeen yi tam naka lañ ko célébrité ak luñ ci xalaat buñ toll nii dafa mel ni ah, jamono ah, naka Touré Modou Lamine Touré noo gisee ñu yes if bi tey ah, kontaan nga si a baax yaa ngi koy yëg yaa ngi koy fiil yaa ngi koy fiil bu baax soo naka nga gisee this new year's eve bi compared to last year dafa different de ban different nga si kon donc mbokk yi ñu gisandoor ak fii ci light euh, si ma gis nañ fii nii daal nit ñi bëri wu. doy na waar 2021 bi euh, yan nañu yan na bu miro 2020 bi euh, corona bi fu mu ne nii lembee na dëkk bi waaye ba tey rek ñu nge fàttali nit ñi rek na nit ñi respecté lii docteur yi wax euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo amee wàlli health bi euh, tam wax na buñ buggee corona génn fi foog ñu def li gaay wax kon na nit ñi sol seen raxas seen loxo yi euh, sol seen max yi def li xam ne moo war pare moytu tam jege ñaante yu bari bari bari yooyu noonu Pa Ousmane bu fekkee yaa ngi may dégg rek ma bàyyi la si xarale bi nga waxtaan ak gaay nekuma eh, di la dégg defa fois yu fa joxo baay di ma dégg léegi la la dégg Juuf waaw mané waaw 2021 year with 2020 year with a difference la coronavirus gi nga wax nonu Gambia man si suma gis-gis xawma naka la lan mo tax be génnuñ pour dem def yi ñu doon def ndax Gambia realistically kenn respectul fa coronavirus jamono ji ñu nekk nii lu nekk mu ngi doon xew kooku Christmas bi gis nañ programme si bi xew open mic bi xew na fi am attaque def na fi programme nii bu yàggul politicien si seen boppa ñu ngee dem président Adama Barrow mu ngi nii jógee ci foo certides ci nekk everyday dafa fees step ay nit kenn respect pour social distancing UDP a ngi nii def fi three days congress ñu ngi ko jos jeexal last week kenn respect pour social distancing am euh, waaw fu mu garmi ñëw na garmi nañ pawur nañ bàyyi garmi tam mu duga si garmi mu ngi am ku moo ku moo interview ku moo waxtaanal biir Dakar uh, ki nga xam ne moom nga am uh, uh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu waaw ngi lay fay tur bi naka la tur bi Serigne gis la ngay doxantu fii ci foire ñoo ngi nii Cices ak Cices ni mu daan mel année yële passé da ngay gis ne fii bu daan feetu day nek fête bu maga maga mag nit ñi di stal fi pétard mais tay dakaru changer xar kanam ndakaaru dund ko ci ci ci triste ndakaaru dund ko ci naxar yow nan nga koy nan ngay gisé euh, feetu tay bi waaw waaw waaw deug la bo xolé ci grand daan def bëlëg nit mu nek lo nga xamanteni ni du dan extraordinaire la nek tay bu ñëwé ñu féete ko ni mu nek lu xaw simple ni da nga xamni ni li fi jaar la da nga xamanteni mo laal deug aduna bi na ni monde bi muy coronavirus di hmm. Covid bi xëy na loolu moo ko waral. Euh, yow euh, fi mu toll nii fan nga fan nga jëmoon nii ak yow nan nga fas yéene féete affaire bi ndax euh, min wi jot na gis nga pétard yi mi ngi tàkk waaye bu ñu njëkkoon nit ñi dañu dem yi tey Youssou Ndour day tëgg wala Wally tëgg fi nga xam ne moo di monument de la renaissance ku nekk ak sa date daal mais yow tey jii en tant que Serigne Saliou benn citoyen lambda fan la Serigne Saliou bëgg a dem féete ji li nga xam ne moo di 31 bi. non offerté dama doon nekk dama doon dévorture un peu yàlla dogal na ko wàccoon naa bu yàgg dama liggéey wàccoon naa bu yàgg doon divertente tuuti doon dem sama kër bàjjen reer yi yàlla dogal ma day damay ñibbi mu dama doon noonu laa ko doon dundee quoi tey jëlu moon décision pour génn fenn parce que ak covid bi nii ak nii li nga xamante ne ni nii soriwaay bi la nii bañ ak mbas mi yëpp loolu moo taxoon ma jël ko man tamit jëruma décision bi damay génn dem ci boîte wala fenn comme que yàlla dogal na amul sax. mais at euh, at yi passé nan nga ko daan fete. waaw at yi dañ daan dem ci nekk ci suñu bopp wax dëgg yàlla nekk ci temps bi muy neex ku ci nekk di ko yëg xam ni instant yu at mu bees mi mi ngi dugg si daanaka ba mu ñu jotee ku ci nekk di ko dundee ak mbégte quoi daal wax dëgg yàlla. Euh, tey ji deux mille vingt bu fekkoon nit la boo mën a waxal lan nga koy wax 2020 bi nga xam ne euh, jàll na sànq ci ginnaaw lan nga koy wax. waaw 2020 moom bu doon nit la dama naan moom moom na dee. 2020 moom. 2020 hmm. bi jàll moom na dee ndax 2020 moom daa tar ci Sénégal yi tar na ci àdduna bi. Hmm. wax dëgg yàlla di ci profité ci l'occasion bi nga xamante ni di ci ziare di ci masaw suñu mbokk taalibe yi. Hmm. Daaru Musti. waaw waaw xamante ni suñu xalifa ko euh, wàññeeku. ndeysaan waaw am euh, ndeysaan borom. oyof suuf oyof ci kawam euh, man fu mu ne nii garmi man sëñ Saliou moom xam nga rek moom tur daa màgga ñu ngi ko wax bonne heureuse année sëñ Saliou Mbacke loolu rek ok euh, mais euh, kii ne na mi ngi lay wax bonne heureuse année Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Mbacke sa tur gi màgg na lool Mbacke Balla kon donc ñu ngi laa wax bonne heureuse année waaw waaw donc su fekkee ni am nga am nga sëñ Saliou lan nga xalaat si deux mille vingt et un bi lan mooy sa lan mooy sa lan mooy sa mbébét ak lan nga gën a bugg a deux mille vingt et un bi nekk en tant que en tant jeune xale yaa ngi jël mbëkk mi ngi jël gaal bi yow deux mille vingt et bi lan moo lan nga ciy ñaan daal boo amee meilleur vœu bi ngay ñaan lan lay doon

Ah, kontaan nañ trop ah bonne a année à toi ah, gis nga nu mu demee lii moo xew fi nga xam ne rek moo di ah, Ndakaaru gis nga mii nii nii lañ ko féetee féetoo nañ ko ci li nga xam ne rek moo di ci benno gis nga gars yi ñoo ngi noonu di dem lii rek la fii mooy Gambian Talents TV waxoon nañ leen ko ñun duñ ciy wax kese damay wax bii dama koy wax mooy yéen télé yu nekk Gambie yëpp laay waxal ku mën na def ñun tollatuñ ci wax kese ku mën na def ñun ñoo ngi nii di def. ah ku mën na def lu ñuy def ñoo ngi partout dans le monde ñu ngi fépp yemuñu Gambie rek tooguñu suñu ay studio yi rek ku mën na def ku mënul na toog yem loolu laa leen wax ah, kon Sima ma delloowaat la antenne bi toog di la xaar ah, lu fi ruusandi rek ma joxaat leen ko Gambian Talents TV jërëjëf Garmi ah, ñu eh, naka wuyoo nga sa tur Garmi eh, mm. Garmi Garmi rek lay doon ah, kontaan nañ trop ci Garmi Pa Ousmane ah, man daal man Gambia Talents at bii nii innovation bi eh, changement bi ñu am gis nga tay Sénégal jël naa accent Garmi changé na ma si saasi tay maa ngi Sénégal kontaan naa trop innovation yu ñu am changement yu am yu bari changé na Euh, ñu won Gambien itam ne euh, ñun fu nekka mun nañ faa neka bu dutoon coronavirus bi di ngeen gis lu nekka Belgium di ngeen gis lu nekka Amérique lu ngeen gis lu nekka feneen a feneen waaye euh, jamono bi moo tëra di rek te ñun ñu ngi lockdown Euh, moo tax na yu bari munuñ ko waaye kontaan nañ torop torop torop torop garmi won nañu Dakaaru jaay bi nga xam ne man dama ko namoon lool waaye yan na fi coronavirus dem yan na dem yan na dem corona moom foog naa ne du musa am turandoor ci dëkk bi du musa am tooma ci dëkk bi parce que corona euh, xaw ma kuy ndeyam xaw ma kuy baayam waaye euh, corona doy na waar kon donc Pa Ous man maa ngi lay bàyyi nga xaw a xuus tuuti waxtaan bu am na ñu nekk ci antenne bi ñeneen ñeneen suñ déglukat yi rek laa bëgg um, a happy new year Mickey Mouse mu ngi foofu ci mu ne mu ngi seetaan si YouTube bi mu ne happy new year waaye my sister borom waa ba jiiba and pa wishing you all the best from Sarr Mikilikii. koku sa mbokami la jeeg caméra person nga waccel ma caméra bi tuuti rek please kooku Sarr liki la mu ngi foofu ci um, YouTube bi mu ngi seetaan mu ne mu ngi ñoo wish a happy new year ñu ngi koy bégee Ousmane jamme mu ne happy new year ñu ngi koy bégee di Gambian Brothers tamit uh, mu ne happy new year moom ci YouTube bi di ñu seetaan si jamono ji um, Musa Dampa mu ne hello ñu ngi lay béggee Musa Dampa képp ku ñuy déglu di ñu seetaan si jamono ji rek ñu ngi lay déggee di la gërëm si sa déglu bu rafet ak seetaan bu rafet su defee jeeg ñu dem rek ci Facebook tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy topp foofu ñu wish leen ñoom tamit happy new years read seen messages yi dafa mel ni technicien waa Baara yi dugg waat nañ rek nga indil ñu waa Baara waaw Nabia ndeysaan ñoom ñu ngi am network problème wala gar mi dafa am keneen ku bugg a interview si diggante bi nga indi laaj ñu rek waaye su a connect ñeneen ñi o ñu ñi nga xam ne ñu ñuy déglu di ñu seetaan euh, Sofa Ñaama Bolong mu ne Asiatu Camara interested Sirifo Mbaalo mu ne good for you Sane Balamansa Jola mu happy new year 2021 si Sima c'est-à-dire ku laay mu ne happy new years happy new years to all Gambian talents and all the followers ñu ngi lay bëggee cest à laay yéen ñi ñuy déglu di seetaan fu ci waay nekk ci ñeneen ci ko ñu àdduna pekku ak gopp wala ngalandoo ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax ci sa déglu ak seetaan bu rafet ah, su ko defee nga delloowaat ñu rek ci Mouhamed Baye Garmi yow technicien su ko defee ñu waxtaan ak moom balaa Garmi di ñëw ok Garmi dellu ci waat na kon ñu lay ñu ngi lay nuyuwaat di la sargal di la tatagal fa sa wuyo nga sa tour Garmi eh, yaa ngi taxaw ñu ngi gis ne yaa ngi biir Ndakaaru Njaay ba tey rek di fessal sa liggey di la wax ne rek eh, ndaw nga way yaa ngi def li war kon do ñu bayila rek nga xuus ak sa gan wa suñu papa daf ñu tàggat Papa Ousmane Diouf daf ñu tagat ci liggey ah eh, moo non señ bi tour bi naka la man may tuddu Maurice Maurice Maurice naka Maurice tin Maurice tin Maurice français nga waaw waaw waaw ah, ok euh, Maurice nan nga gisee ndakaaru ndakaaru changé beneen xarkanam euh, yow nan ko bari yëg-yëg nga am non maa ngi am yëg-yëg yëg bi nga xam ne instant yi dama kontaan quoi dama gis ne même si ak feebar feebar bi ni mu demee nii covid 19 bi quoi gaa yaa gaa ngi feetu nii yaa ngi dégg pétale yi nii quoi yaa ngi gis pétale yi dëkk baa ngi kii quoi yaa ngi comprendre mais xoola année bi année deux mille vingt bi métti woon na trop waaye gars yi kii zeroon nañ ko daal ak kii bi nii covid 19 bi masque affaire yooyu euh, sensibilisation bi ok tey ñu gis ni gis na yaa ngi Ciss nii sa ginnaaw ni fii mooy Ciss te ku wax Ciss xel yi dem si Youssou Ndour wala xel dem ci Wally Ballago Seck ah, waaye ren ñu gis ne ñoom ñëpp euh, tey fi may wax ak ñoom ku ne mu ngi sa studio euh, foofu la war a fas yéene bégalee ñi nga xam ne rek ñoo di ay fansam mu doon ay moment yu critique ay moment yu difficile comme ni ko gars yi di waxee rek mais yow tey en tant nga waroon a génn dem buloo ji wala nga dem baal yi yëpp defoo ko Euh, foofu la lan nga sentir euh, ci loolu non c'est que su am xam ni soo xoolee ki gars yi dañoo tere rassemblement bi nii affaire yooyu noonu léegi que ñun xaw ñun mënoon nañ génn nii comme niñ niñ ko taamee nii dem taal pétal yi génn ruube dëkk bi def lu ñu neex quoi mais bi baa ñoo ñëw ñu def simple quoi ñëw yaru dem gaale benn gaale booy toog foofu yore kii suñu suñu ne gars yi dañu wax ne seen seen yi ci bari ñu ci appartement yi ak seen seen gel yeeg yooyu maan yow Adama ah, mais am na am na am na ba léegi mais xam rek eh, man daal ñun daal ñuy dem nii ak gang yi nii booy dem mais lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi fii ba Gambia di la seetaan lan nga leen di wax from Gambian Talents TV lan ngay wax sa mbokk sénégalais yi nekk biir Gambie euh, di feetu li nga xam ne rek moo di 31 euh, euh, décembre ak mbas mi ndax mbas mi fépp la nekk ci àdduna lan ngay wax ñooñu sama gars xool maa ngi leen di souhaiter bonne une bonne et merveilleuse année 2021 wala deux mille vingt et un bi nag daax deux mille vingt bi quoi gars yi yéen a may dégg ah waaw from Gambia ah, donc euh, ñu laaj la suñu euh, laaj bu mujj rek su ko defee ñu bàyyi la nga dem waaw euh, mooy tey jile ban souhait nga am ci deux mille vingt et bi nga xam ne dugg nañ ci nii bis ngi tey dugg nañ ci ci ay minutes ci na gis nga yi ngi taal pétard bi gis nga ba tey booy ñoo noonu mais 2021 euh, lan moo gën a ñaan 2019 bi mooy feebar bi feebar bi dem quoi nga xam ne au moins ñu kiiwaat suñu vie normal xam nga loolu moom dinañu arrangé xam ne instant yi feebar si demoon ay affaire yu bëri nañ changé affaire dina normal a am euh, ah, su ko defee nga indil ñu rek technicien nga indil ñu ñeneen ñi ñu déggee ñoom euh, a dugg am seen gaa yi nga indil ñu gars yi tuuti rek jërëjëf Garmi euh, ak sa guest yaa ngi fii di seetaan yaa ngi live on direct ci euh, Dakar ah. euh, ok donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax yaa ngi woon di ñu seetaan tur bi naka la ah, ak indil ñu sunu borom Euh, man maa ngi tudd maa ngi tudd Daniel Daniel Diop séeréer laa nuyu booy bi. waaw mais tey jii euh, mooy euh, lan mooy. technicien yi mun a régler waaw na muyut gar mi rek su ko defee mu indil ñu li nga xam ne moo xew foofu si ah, Moussa Jinne ah, jéeg gisal nga ma Moussa Jinne fi mu génn ci jamono ji si sanse moom it costume am baax na ah, su ko defee rek wala nga indil ñi nga xam ne ñoo nekk fële te baara wala Birkama ok kooku Mariama Sisa wala kooku Mariama Sisa wala ma jéeg xanaa nga jàppal si bi tuuti jàppal si commentary bi jéeg ma jàppale technicien bi tuuti foofu noonu waa Brikama ñoo dugg si noonu waa Brikama ñoo nekk noonu ñoom seen caméra bi mu ngi upside down unfortunately waa Brikama ñoo nekk noonu ñoom Ibrahima Sagna Okay, i bimbing warna awasi dengan. Okay, apa yang

jeeg su ko defee rek yow nga aji bintu naka ngeen def foofu waaw nga dellu si war rek ndeysaan nga wax ñu naka ngeen def foofu yéen rek ñu ngi dox di xuus si biir di xool ñu mun a ak nit ñi pour am ñu ñu wax ak borom concept

waaw Pa Ousmane gis nañ ne jamono juñ toll nii a fii ci ah, ah, traffic light ba tey dafa mel ni xale yi gën a gën a ci mag yi comparer naag last year nu meloon wala at yi nga xam ne moo fa passé jamono ji nu meloon waaye nag nañ gën a dugg ci biir ah, gën a waxtaan ak nit ñi dafa mel ni nag ah, nit yaa ngi commencé gën a jamono ji ñu toll nii waaye bro bro yi nag maa daw de new year nii nii nii waa ba tey ñu gën a dugg ci biir rek ah, gën a gis ñu waxtaan rek ba tey am leen a am interview seen nay bi bu leen ma daw de ah yéen noo leen gisee ñëw di si yéen muy nees rek noo leen tudda no xaaral ma njëkkee si yow yow noo tudda naka Daouda Sarr yow noo gisee ñëw yee yaa ngi koy yëg yaa ngi koy bu baax a baax Ya ya neena uh, neena de yow noo gisee ñu yees bi di si ah ren moom dañuy ñaan yàlla rek am la laas yee bu ñu gënee yàlla bu ñëpp xam nañ ko So yang prepare, yang prepare 2021. Yes, sir. Wah, tinggal sama kelbu yang kerja. Ah, mana kau kan bawa benih na bawa benar

su fekkee mun ngeen a on euh, mun ngeen a miit kii euh, be euh, ñu indi ñeneen kam nga xam ne leeree nafa rek saa su rek ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si terrain bi ñu ni nga xam ne ñoo nekk si fil bi di liggéey. Euh, yombut pour nga mun a liggéey Gambia euh, ak internet bi ak yooyu yëpp waaye ñu ngi leen a sant di leen gërëm euh, buñ ci jógee rek dañoo ñëw di ñaan di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan di wax Sirif Mballo mi nga xam ne ci Facebook bi mu ñoo Sirif Mballo mo ñu ngi koy sant di ko gërëm rek euh, wax ji am na solo bu baax a baax a baax ngeen baagal ñu rek euh, fiñ nekk nii ñu ngi live and direct euh, di leen indil a special um, coverage of the nga jàppale ma rek ci caméra bi noonu ñu indil leen a special coverage of the New Year's Uh, coming to you live and direct from Gambian Talents TV fu waay di dégloo di ñu seetaanee ci ñeneen di ko ñu àdduna ñu ngi leen bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet uh, ñoom ñu ngi leen ay bëggee ñi ñuy seetaan ci YouTube bi ñu ngi Facebook bi ñu ngi leen ay um, uh, ñu ngi am si Facebook bi ñi nga xam ne ñoom saa su ne rek mm-hmm. maa ngi am Sané Balama Ndaat Euh, mhm. borom Denmark ñu ngi am Sirif Mballo ñu ngi koy wax ne happy new year di am Sedikhou Laye. Mhm. kooku euh, kooku Gambie Sophie euh, Sofa. Sofa Ñima mhm. Boja Bolong. sorry ñu ngi koy wax ne happy new year rek di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo safoo Gambia leen ci jamono bi di seetaan. waaye nag eh, Pa Ousmane eh, man suma ma wax rek dinaa ne koro 2021 ni euh ñu seet ñoom Nabiya dugg ci né ñu dugal leen rek. since ñu ñu am problème ku ci am touti opportunité rek ñu alaw leen ah, su ko defee technicien nga dugalal ñu gaay rek ñu gëna gaawé am su ko defee ñu indi gaay rek waxtaan ak nabi Nabiya ñuy nañ la. Nabiya ñuy nañ la. Nabiya Sarr nabiya mooy foofu si baara nuyu nañ la nabiya waa Mr Diouf dugal kan ne ñu ngi nii live baara yaa ngi nice you looking beautiful lan moo nekk di xew baara si jamono ji dafa mel ni nabiya ñaakaat nañ ko ndeysaan waa Brikama seen network baaxut xam nga siima gis nga man man yi ñoo ma naqari li ma naqari man neexuma gis nga Gambia 2021 lañ wax still network problem am so unfortunate like seriously ñu war a dooree at bi nii lii ba kañ ñun suñu liggéey bi is very hard ah, very beautiful gaa yaa ngi bugg a def seen liggéey bi am am nit ñi pare nañoo liggéey few months ago rek lañ fi toog dégg vice président bi ndaw yi pare wu ñoo liggéey ndaw yi pare wu ñoo liggéey seen maalo bi bi ñëwee di politicize corona bi jël maalo bi teg ko foofu Makati Square xale yi génn ñu ne ndaw yi pare wu ñoo liggéey te fekk ndaw yi ñoo gën a bugg a liggéey waaye fu tegi liggéey yiñ bugg a jox ndaw yi ak liggéey ñaar ñetti fan these are the type of things that they love you see these young people and how beautiful they look you see what they are ready to do internet bi waaw ah, man li ma mënut a understand mooy ñu nekk si um, at biñ nekk 2021. Mhm. Ah, tey senegal yaa ngi mhm. gis ki nekk Sénégal network am bi li moo dog sa bariwut. ñun mi nga xam ne ñoo nekk Gambia ba tey mënuñoo am uh, coverage biñ soxla ak waa gàmbia uh, doy na waar te métti na uh, man loolu jaaxal na ma lool lool lool lool. ko si waat nañ su ñu gars rek en ñu dog wax xam nga soo gisee lii sax mënut a ni mu war a demee ngir am network issue am am. whoever is available ah, gis nga lii xoolal lii rek xoolal lii connexion am problème internet problème at mi ni moo commencé si boppam Nabiya dugg si war na Sarr nuyu nañ laa. Nabiya ñu ngi laa nuyu. naka baara di oh, li fi ne yow continuer rek buggu ñoo wax sax yëfi di dog. Nabiya ba sama ngee dog xanaa ñu indiwaat garmi rek ok waa Nabiya Sarr ngi noonu Lamar Faye Faye ngi noonu di interview.

gis ngeen euh, waa baara yi ndeysaan nabi yaa ngi noonu gis ngeen yëfi ni moo am dugal rek pelnere dem bee euh, wala ñu delluwaat ci gar mi ci gar mi waaw gar mi euh, ñu ngi lay ñu ngi lay nuyuwaat rek di la wax ne foo nekk ak lan moo xew Dakar jamono buñ toll ba tey parce que ñu ngi seen ñu ngi Dakaaru Njaay Jal Jóob kooku mm. mooy dëkki Lat Joor Jóob kon doo waxal rek ñu lay déglu Ah, xam nga dañuy wax ne euh, Ndakaaru Njaay euh, dafa dañ koy woowee fukki penc ak ñaar mooy maanaam fukki penc ñaar boo déggee fukki penc ak ñaar yi nag tey jii maa ngi maa ngi ne faax foofu foofu mooy Wakaam foofu mooy Ngor ah foofu mooy fi nga xam ne mooy Almadi foofu mooy Nord Foire foofu mooy fi nga xam ne rek moo di West euh, Foire falaa nekk ci diggu xooli Ndakaaru tey jii Wally Ballago Seck soriwu ma dara këram mi ngi nii ki nga xam ne moo di Papa Diouf soriwu ma dara këram mi ngi nii ñooñu yëpp Youssou Ndour soriwuñu dara këram mi ngi ne ci ginnaaw parce que Almadi la ñoo ngi fii fi nga xam ne rek moo di ci foire bi ci xolu euh, Ndakaar donc maa ngi fii maa ngi dégg yaa ngi wax affaire euh, euh, network bi nga xam ne mi ngi jaam muy perte réseau yi fii amu fii parce que maa ngi nii depuis ma connecté wu li sama réseau di daw bariwul loolu yëpp dañ koy naqarul nag foofee ci Gambia comme ni ko rek monsieur Diouf waxee boo woowee ndaw ñi si liggéey faaw nga tegal leen jumtukaay ndax government bi mënuñoo jox xaalis pour ñu liggéey mënuñoo jox feneen fu ñu li waaye lim ñu a defal mooy euh, terrain bi mu bayal ñu ko euh, terrain bi mu bayal ñu ko xalal ñu yoon bi ba ñu mën rek euh, avancer kii nii moom it na ñëw ma daal di ko rek interviewé moom it dafa ragal a wax. waaye ba tey rek gis naa ne yaa ngi dëkki léeg waaw dëkki léeg daawur nga nekk ah. borom Dakar. waaw ah, ay Sima Sima Sima yow dag may tàngal. maa ngi ci dëkk lëg daawur lëg daawur mbay mooy rabu ndakaaru waaw waaw kooku mooy rabu ndakaaru moy maamu V sañ-sañ fañ. kooku mooy maamu Mbaye Gueye Faye ah Mbaye Gueye <laughs> ah, sañ-sañ kay maq suusal sañ-sañ kay maq suusal. waaw kay ah, jeex na tak donc nag ñoo ngi fii Dakar tey jii di dund ndeysaan 31 ah, bu xaw a spécial parce que rek xam nga dañ génn ci 2020 eh, wax na dafa doyoon waar aha waaw ay nañ dugg nañ ñëwaat nañ ñu indiwaat gaay rek si ah su ko defee waa Sénégal ñoo ñu a baax network. gan mi nekk waa si yow rek kan moo nekk noonu si ñoom aji bintu la wala ñoom Nabiya la wala waa Birkama ni ñu leen ko doon paree defal waaye gaa yaa ngi record moo tax ñu yóbbu ko ci yeneen caméra si gaa yaa record si ma suñ paree dina ñëw ñu air li nga xam ne moom laa gaa yi am noonu waaye nga indil ñu Nabiya Sarr gis ngeen network am bi ni moo ndeysaan. network back here. Well, no, you like um, I'm going to. You have the uh, You like and I see the crowd, you know, also me, I'm an artist. You know, like, you know, when um, crowd come out to support the artist, like artists, the big superstar, you know, like, if you put your money, support the artist to go down, that one is well, and you yourself is good to be, next time is good to be supported. So I really appreciate the crowd, you know, also me, I'm an artist, also. I'm a foreigner here. Wow, you want to Riam a cappella? Yeah. Wow. Oh, Aja, let's go. Uh-huh. Mina Adoma, Kalem Abdullah, mm-hmm. America, Canada, we choco fly. Mm-hmm. I can bet five more ways to consume. Oh. Baby, you don't put me in fire. This is violence because I can wonder. You don't box up in my left thunder. I want to keep for shopping and romantic. As a secret, I know romantic but and na diplomatic because you know meaning are diplomatic for you love stuff ala ala let them call themselves Allah, ala ala are not clear they call me palava come and hold me and they do what Allah. you find it they fight me they say right now they want kill me after upset everybody fight me everybody sick now everybody talk for me okay I link to me I link to me thank you thank Oke, menawar bersama. Ibrahim Hasannya menawar bersama ini bukan sore, walaupun bukan sore. Kadi ànd ak Mariam xanaa ñu indiwaat dara mi rek su ko defee ndax kadi waaw nañ seet kadi ki moo waxal noonu. ñoo ñëpp mën nañoo ñëwandoo mais indi, duñ mën a. waaw Oke, indil garmi. Eh, eh, garmi waa eh, monsieur Diouf eh, maa ngi lay eh, dégg donc maa ngi taxaw benn Jakarta dañu wàccoon ndax ñu ngi woon ci pont foire bi ci kaw lañ nekkoon pour mën a jël si suuf ak lépp waaye wàcc nañ léegi daje ki nga xam ne rek moo di borom Jakarta bi sëñ bi nuyu naa la ñu ngi fay yaa ngi yaa ngi ànd rek ci télé bi nga xam ne mooy Gambian TV nekk fële ca Gambie ma teewal leen fii ci Ndakaaru Njaay tey jii année bi nekk année bu spécial nekk année bu métti woon parce que dañ koy woowee année sociale et difficile Euh, loolu la moo boobu la tubaab bi daal di euh, utiliser donc yow en tant que jeune euh, ban yëgee nga am ndeysaan ci njeexitalu at bi ñu koy féetee ci anam boo xam ne bokkul woon ci niñ ko daan féetee ci année yu weesu. non at moom mi ngi mel ni a wax donc te jii yaa ngi génn fan nga jëm parce que bu njëkkan am nga fu dem. waaw waaw tey jii moom daan na dem ay boîte ay réseau. mais dama dégg ne instant à part ko tëj yëpp dañu koy tëj waaw. instant léegi nooy def foog nga dem sa appartement boo koy luwee moom yow kese wala da da da ak say copains yéen ñëpp a fay de. ak ay copines ak ay copines. ah ngeen daje fa mais fi mu toll nii ndax yow euh, booké nga benn appartement pour dem hmm. kon ren jii yow préparé wo dara ci fête bi préparé woo tey jii boo doon ñaan euh, deux mille vingt et un lan ngay wax. deux mille vingt et un ngi ñaan ñu dugg ci dugg bu neex ñu jëm ci kanamu kanam dàq 2020 bi ñu passé donc ñu ngi lay jaajëfal ok ñu ngi leen doon allez merci beaucoup taxal ah gis nga jërëjëf Lambi xanaa technicien nga indi laat ñu waaw gar bi dafa gis nga gis nga xale yu xale xale yaa ngi ko yanja ah xale yaa ngi nii moo ngi nii sance sance sance ba ba ba yanji donc soxna si jëlal ba ci kaw ba ci suuf gis nga lim def kon affaire yi lu metti metti metti metti metti gaay yi ñu koy ñu koy ñafé affaire lu metti metti metti gaay yi ñu koy dund euh, soxna ci nuyu na la tur bi naka la awakan ah, awakan tey euh, fan nga jëm ni ak sañse bu sañse bu rafet bi almadi nga jóge euh, almadi fa nga dëkk wala dem dang fa demoon lan nga doon def pour pour pour pour forêt hein ah. mais est ce que du sa sa copain moo mon invité non non am copain mais tey jii euh, am ñu gis ne euh, affaire yi bari na euh, deux mille vingt bi coronavirus bi mbas mi tey jii ñu gis ne deux mille vingt jeex na ñu ngi dugg ci deux mille vingt et un tey jii boo doon wax deux mille vingt lan ngay wax ci deux mille vingt ak deux mille bu ñu jëm si nii wala bu ñu dugg si nii lan nga ciy wax. ah ñaan ñëpp am jàmm rek parce que wér ak wérle moo gën lépp parce que gis nga ko am ay millions sax li jaabante hôpital wér ak wérle rek laay ñaan yàlla. ñaan ak ñun ñëpp nekk si jàmm sa mbokk yi nekk Gambie di la si ñoom ñëpp ñoom ñëpp àdduna bi yëpp monde entier bi yëpp maa ngi di ñaanal yéen ñëpp jàmm di leen souhaiter une bonne ngeen am wér ak wér di ngeen bëgg seen xol yalla may len ko ak ñi nek hôpital yalla fëgg seen bop lan ngay wax Gambian talent TV télé bi nga xamné euh, mom mo fi togal addu bi mi ngi fep ci adduna bi partout dans le monde moy télé bi nga xamné euh, moy number 1 ci Afrique euh, lolu lañ koy woowee ah, dama koy ñaanal avancement rek lu muy def ni yalla may ko euh man dé gar mi xalé bi ne sopana ko jekk na macha allah tanuwaar baax na bonne soirée à toi merci merci beaucoup jërëjëf xanaa ñu waat fofu ci bir kaama rek gar mi ñi ñëwaat ci yow ah, xalé bi ñu lay sant di la gërëm di la wax ne rek ba tey rek fi nga fi ko fi ko la mburu bu xoyom du garbi kon ñu ngi rek dina you uh, because you know you know every every Maybe this So we've seen that there no fireworks where it is everyone is saying about this. And what do you think? What do you about that? Uh, even me, I'm waiting for SD, but still now. I don't know what's going on. Uh, so what, what what are your expectations in 2020? Yeah, find anything like like um, mm, okay. just someone like Yes, yes. I know you want to get married, right? Mala. You want to get married, right? No, no, no, no, no. I want to play school. Okay, I go to university. From there, I have my job. After that, yeah, I get married. That's my plan. But I want to be a journalist. That's That's Oh my God, God, this is so amazing. We came here and we come and I got I want to be a journalist. This And by now, what what should you do to become a journalist? Jefu ko say na bu kana technician ñu delu ci the ci nek ni ci ne waxtaan Um, am gaay dinañ jéggal li nga xamne mom la ñu indi kanam Ah, dinañ leen ko indilaat edited video si dinañ edit video si indilaat leen ko ah, ñu ngi leen ay liggéey yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarfu ngopp wala ngalandu Gambian Talents TV la spécial media coverage waaw balaa ñoo jëm nag balaa ñoo jëm si kanam ah, maa ngi suñ jabar ji maa ngi koy wax happy new year moom tam moo njaboot gi parce que moom tam nag ñu ne feccum liir bu neexee ndey jaatiye si mbagali madame Diouf mi nga xam ne moo ñu bàyyil suñ pa Ousmane ak nag pre mind bundu xatalu eh, ko bayiko nak bam nek live rek mu commencé diko signal kon dok yenn yalla barkel sey bi yalla may len jabo sen njaboot gi yenn si yalla tek loxom eh, yenn la yalla musal si ay ñaare lak ñete lak ñeneen ci si barke salaatul fatia yow mm. gudal fan be sa may di bawar eh, madame Diouf man yow la andal yay ñaareel yay ñetteel yay yenn la si yalla musal bu <laughs> xol sa jikar yenn gumbo way xam nga yow waane nga def waaye moo si jàpp alhamdulilah moo si si jamono ji nii rek. waaw baax <laughs> ah, ki toog di sëy ah, <laughs> Pa Ousmane ñun ah, ñu iya bi am nañ si lu baree bari. Mm-hmm. suñ borom kër yi fam fu ñoo rek suñ borom kër yi ak suñ jabar yi time bi war nañ toog sagar leen tata tatagal leen xam ne nag tey jii suñ ñemeñee rek taxaw si kanami. Euh, télé bi wala ñu ñemeñ taxaw di wax euh, ñoom ñooñu si bàyyi tey parce que tey am na nooy mel nga am na xar sa biir kër doo mun a toog di wax nga am métit si sa xol doo mun a wax euh, foog naa ne mbëggeel mooy capitaine ni boromam fa am na nu moo demee rek xëy na tey Pa Ousmane du sanseem bu yaanja bi du ci jaar sanseem bu yaanja bi nit ñi duñ ko xool kon donc baax na tam yeneen saa ñu sagal suñ ñi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel ak njaboot gi ñu yàlla booleel Eh, di leen wax ne rek suñu yaay gi ci kër gi yan na fi yàgg lool te wér di ko wax ne happy new year man nga man mooma faa man number one mooy suma faa number one kon di ko wax ne mu yàgg fi lool te wér yàlla may ko gudda fan ak wér ak wér la yàlla barkeel njabootam gi lépp li nga xam ne nama na ko si njabootam yan na ko ko yàlla defaral eh, di ñaanal nag suma yaay eh, mi nga xam ne moom fekkewu ko yan na ko yàlla xaarel àjjana may ko jannatul firdaws di ñaanal suma broda si ñoom Cheikh na ñoom Buun euh, ñoom Sifaay euh, ñoom Laalia waa kër gi yëpp euh, di ñaanal suma soxna Ami Koole chéri Buun Haydara ñoom ñëpp ñu ngi leen a ñaanal ak ak ak chéri Cheikh na di Astu Fati ñoom ñëpp ñu ngi leen a wax ne happy new di ñaanal suma goro bi Ngiye Njaay mu yàgga fi lool te wér yaayi Pa Modou Fall yaayi Halifa Fall ak Seeni Fall faaleen gi yëpp ñu ngi leen a ñaanal gudda fan di ñaanal suma jarbaat Binta ak uh, Maymuna ñoom ñëpp ñu ngi leen a ñaanal uh, uh, happy new year di wax ne ñu yàgg fi lool te wér man ñoom la nopp te ñoom man ñoom man lañ nopp ko donc noonu la paawus jërëjëf jeeg dafa mel ni aji bintu dugga si waat na rek fi mu de lampa yaa ngi xuyu xuyi xanaa ñu seet aji bintu rek wala ñoom nabiya su dee dugga si nañ seen si ñoom aji bintu ngoog aji bintu jamono ji fan ngeen nekk ba jamono ji daal dellu si nañ fi nga xam ne mooy Westfield lu xew Westfield fi jamono ji waaw dafa mel ni moo xaw a gën a jax trafic laay de waaw dafa mel Westfield a gën a jax de Westfield a gën a jax trafic laay fi nekk nii ah waaw Westfield a gën a jax de ñoo ko yaa daf daan gën a jax lii si man ndax last year I remember di ko di Koba. ñoom amoon nañ ay pétard ak yooyu yëpp xaw ma dañ ko mis is definitely mu ngi laar benn tey Westfield mooy the heart of the Gambia mooy downtown the Gambia mooy ville de Gambia of course mu Kairaba Avenue nga gis askan bi xanaa jibi fu nga waxtaan ak ñooñu mm-hmm. gis sista yi New Year's Eve bi ni di ko enjoy nga nga dugal si New Year bi xaaral ma wax si sa bu rafet bi man si sa sa ñu lay rek a may rey ni nii nii ni nga ko oyofalee nii rek noo tudd Amina Ami Seydi nii rek nga def noo gisee ñu gisee New Year's Sonia ñuy yeb yaa ngi koo yëg yaa ngi ko fiir tuuti rek tuuti plan 2021 dafa am ah wax ñu loo a wax waaye ba Ousmane kii mu dafa lu ñu wax ma Fanta Fanta naka ba fan nga jógee ni Fanta Bojang yow wang fi nga jógee ak si ba Westfield pour New Year rek waaye yow lan nga ñu bëgg a wax te tey moom dama soona New Year bi neexul dara dara dara. New Year bi yeexul. neexul dara. yow yëguloo ko. yëguma ko yaram sama yu teyal fu ma nekk nii mooy ma nekk. léegi daal stress boobu nga amee. stress so yow noo gisee new year this year bi ak new year last year. léegi ba yaa ngi yëg new year bi wala yëguloo yëguloo ko sax dara dara laa yëgul. yëguloo dara dara dara Paa Ousmane dafa mel ni fan toll nii fii fi am dafa bëri ni fan tam ne moom yëgul new year this year bi lan ne moo tax new year this year bi ñëw. ah man de xaw ma ñëw xaw bi muy muy ñëw muy xaw. so yow daal élection bi nga foog ne moo tax ñu yëg naa ko dégguma pitaar dama laa dégg ah ma nekk nii dama ko ba teel dama ko dégg maa ngi waaj a sax léegi yow lan nga am looy wax ñoo xamante ne ñu ngi seetaan si ñu dinaa ko fekk Pa Ousmane loolu doon na loo xamante ne mu ngi fii ci Westfield ñu yëngee yëg seen am ñu yëg ñii nag ñekkuñ di ko yëg nit ñi seen feeling yi nekkul benn nit toog nañ fii si Westfield at bu ne dañuy gis peetaal mu taal at bu ne dañuy engel at bu ne dañuy bëggee waaye at bi nag dafa mel ni peetaal yi dañu xala jam faa ak gisuñ benn peetaal nit ñi bëri nañ waaye ambiance bu fi daan ne nekk Mumbai bu fi daan ne neewu jërëjëf aji bintu kàddu gi rafet na waa Brikama ñu ngi foofu ak ñoom Nabiya dellu si waat nañ fële sa baara xanaa nga um, waa Baara ñoom. Mhm. ngi nii live Baara ñu ngi nii Baara waaye Baara daal nañ ne dara dara dara fi Baara gi nii jóge nañ si kaw tali bi waaye ñu ngi nii si biir dëkk bi gis daal fu mu nekk nii moom amul benn ambiance ñëpp a ngi tëdda ñëpp a ngi nii waye dal gis ngeen kele mu ngi display bor bi len ne mu ngi ñu or nañ dem ñu xoolal lam ñu wara wax bi sa juuf nañ dem ñu wax ak mo dem leen ngeen waxtaan ak mom rek. waye mu ne ndax ñu am dara ki gëna ba a alaykum salaamaaleykum. TV la. Gambian talent TV la. naka sel ak naka ngeen mel ak Qcell. Ah, dafa utee dafa utee sel tour bi. waaw may oumbay oumbay oumbay fo deka dëkk. waaw maa ngi Jamani. yaa ngi jógee Germany léegi yow lan nga gisee Chris ñu ah, year Gambia bi fii ci Barra wish you the same léegi yow naka nekk di enjoy ne mm-hmm. ah, lan nga am lia def nga meñu ci alal bi gis kaa ngi nii bu roo naka nga tudda cool maam man maay Aliou Aliou foo dëkka Aliou Sow Kër Galo noonu as kanik léegi yow gis nañ la yaa ngi jógee Kër Galo yaa ngi nii right now baara ngay def fii nii man just hustling rek pour am dara rek mm-hmm. because 2021 dama bëgg a dem Europe danga bëgg a dem Europe yes naka nga bi kontaan naa si bu bi aw ma dara benn xaalis bu te expect naa ne 2021 I will get money. Euh, dem Europe si plane laay duga ñu gis am mun a euh, dem. ñu gis ne ñu yees su jotee am bu nekk daf am ambiance waaye ñu ñëw fi nga xam ne mooy gisuñ fi dara yow lan am pour wax si fii nga xam ne mooy baara ñëw ngeen fi te gis ngeen ne. dara am dara nekkut fi ambiance amut dara amut. ambiance waaw dina am dafa dess rek. Mhm. waye dina am si desi yi mu ngi am ndax té amna place yu yëngu ni hmm waye dafa dess dal comme yeen ni ngeen ko waxé rek waye dina am. légui yow lan mo sa expectation this year. lan moy suma expectation dal. pour ma dem Europe rek ndaxte sonn naa ci gambie na different kind of job bo helat muy service muy security liggéey boo xelaat man ut naa ko waaye mënuma koo am waaye foog man daal dama xaddi waruma dem Europe rek foog nga ne Europe nga ko mun a méegee Europe laa ko méegee nag inshallah Europe laa ko méegee te dinaa ko fa méeg ndax méeguma ko Gambia so yo expect loo loo expect yëpp si Gambie amuloo ko yo expect na soo demee Europe di nga am loolu Gambia dara Europe kay su ma fa amee su fa duggee léegi ana suma aljanna mooy des waaye suma everything dinaa ko fa am <laughs> expect naa ko soo yow ñan ngay wish happy new year. jërëjëf maa ngi koy wish fu mu nekk nii Mr Diouf wax nañoo kii pare léegi dañ bugg a dem am nañu ni ñu nekk ni toog nii si restaurant bi xaw ma restaurant la xaw naka la ko gaay dee sax lii nii tur bi dafa la leer ma. anga mm-hmm. naa tur bi Souleymane ñu gis la yaa ngi toog fi ni te tey la ñu year's eve naka nga year's eve year ah ñu Si jàmm la ko gis daal jàmm ak salaam rek lan mooy sa tànka fii nga ñëw taxaw fi nga xam mooy tànga naa non fi dib Ah. dibiteer lan mooy dibiteer parce que ah jaay kay afra ah, ok mooy a ah, naka nga gisee ñu IS bi waaw kontaan si yéen kontaan si ñun lan nga yaakaar si 2021 bi jàmmay rek dañ yaakaar jàmm war am si 2021 bi na ñaanal yàlla rek yàlla napp amiin kan nga wish happy new year jërëjëf suñu delluwaat aka Birkaama rek suñ déynee baara noonu ñu delluwaat Birkaama rek seet nekk foofu tuuti waa baara continuer seen interview rek nga indil ñu waa Birkaama ñu seet gaa yi Kadi Touré ngoog jeegi yo yaay wax yaa ngi waxale Dakar bi nag waaye waa Brikama ak waa Naga waa Brikama ak Dakar dafa mel ni Brikama ak Dakar moo fi leen defal. dégguma ne le. déggal bi ne esti la nopp ana esti foo munti nekk yaa ngi dégga ah Miss Gomez bi ne yow la nopp ah sant nga moom sant bi naa apa-apa. Ya kita, apa ya udah tahu. Hasan tuh di momen lang kay lang kay one week kanyumenyo dila sa tuwing ang manlan ni Wahne hindi ako pinalyarin mis out ko rin na kasi hindi mo gini mo gini kasi po katinal man pa siya nalit na ng waaw parce que ko dam nag ko gis naa loolu fans la waaye nag ñu I know ne maybe di nga di nga dara wala you want to change something because ñu ngi ñëw dugg 2021 sooy war a change lan nga war a change pour si 2021 am like man sa bopp am dama change so many things like ma bàyyi dina bu góor gi waaye est daal su mu ah yow gën a guddi bi doo dem waaye est-ce que bu moo da lan la. jëfare dama bëgg a nekk ak na nekk most time mu fay na nekk wax naa dama wax ne corona bi dafa yaaxal lu yaaxal na lan mooy sa last message message to our viewers Um, su ma laas message mooy yéen daal yaa ngi aw ah, yéen ñu nekk si kër gi fexe leen daal ngeen ñëw est ce moom oote est ce oote wuyu leen. waaw mën nga wuyu est na wuyu est ce man jox ma benn rek benn si woyam. am um, loo naa nga. Ah. <laughs> ah kii. kii de bëgg na est ce même jeex sax. Jadi jadi jadi ah. gitu, um, um, ya, um, Garmi mu ngi waat ci line bi rek su ko defee am Garmi Garmi rek uh, ah, Garmi uh, uh, Garmi bi. Garmi rek bi. maa ngi ci VDN bi fi nga xam ne mooy VDN de Dakar euh, VDN foofu laa nekk nii actuellement. sa caméraman bi mu lay dog nag sa caméraman bi mu ngi gi gar mi. Euh, jël ma ful kii euh, Cissé la sant moo tax. Mm-hmm. waaw mu ngi maa ngi ci VDN VDN bu Dakar mooy VDN. ci Dakar foofu noonu laa nekk léegi génn naa fi nga xam ne rek moo di ci foire bi Nord Foire yëpp. léegi doxantu naa ba ci VDN bi xam nga euh, comme ni ma la ko waxee woon rek euh, fii yëpp koñ yu jaxasoo la rek muy Wakambeeg Nord Foire ak Ngor ak Yoff ak yëpp benn koñ la Cité Djily Mbaye euh, yooyu yëpp benn koñ la fi nga gis ne fii la daan affaire di gën a takkarnaase fii nii ci mbedd mi ak ci koñ yi nii waaye gis nga ren nu mu demee ren affaire yi domewul nu mu la demee sama waay wanal ma wanal ma sama gars yi fële yaa ngi gis yooyu noonu yëpp place yi loo xam ne foo xam ne fële laa nit ñi di dem hôtel yi appartement yi gars di ko jël ñii di ñëw ci euh, fu ne gars yi ñi di ko jël euh, yooyu yoon yëpp dañ koy jël di nga gis nga voie bi yaa ngi gis fii benn ab xàll la mooy yoon yoon boo xam ne yëpp dañ fay dem euh, pour rek di mën a yoon bi moo la yóbbu ba fi nga xam ne moo di cité Djily Mbaye yëpp ay bërëb la yoo xam ne ni askan wi dañ faraan dem ngir rek di mën a dund li nga xam ne rek moo di seen 31 décembre waaye ren demeewu noonu ndax ki nga xam ne rek moo di gouverneur li mu wax nee na minuit bu jotee bépp appartement day Euh, bépp hôtel day tëj bépp restaurant day tëj loolu moo tax ñu bëri taayal nañoo dem daal di rek fay li nga xam ne rek moo di appartement yi ndax dafa cher te ren amuñu fenn fi nga xam ne rek foofu lañ mën a demee féexlu lenn rek moo fi am mooy euh, Youssou Ndour ak ki nga xam ne moo di Wally ak Sidi Diop ku ci nekk yaa ngi ci télé bi nga nekk kenn ki mi ngi ci benn télé bu ñuy wax euh, Sen TV keneen ki ci des mi ngi ci mi ngi te TFM keneen ki ci des mi ngi 2STV noonu lañ koy dundee ak seen i mu nekk live comme ñu koy defee nii rek live show lay boo xam ne ci YouTube bi lay mën a nekk nga toog téye sa téléphone wala nga siraan ko ci télé bi waaye euh, saafanteeg seen i fans ñu ko mën a am kon monsieur Diouf euh, ak suñu ñuy seetaan aw wonderful viewers lu ñu leen mën a wax rek mooy ren aduna wërngel képp ñu ngi dund li nga xam ne rek moo di euh, mbas mi di ko dund ak beneen anam surtout ni ñuy feetee li nga xam ne rek moo di 31 décembre surtout si Dakar benn laaj rek gar ndax am Sénégal ren màggal gi ñëwoon na gàmmo ñëw na waa ñaseen waa woon ak yooyu noonu yëpp màggal gi amoon na gamo amoon na Europe bi soleen bi jot ñu ne lii du am Sénégal demoon na ba tollu foo xam ne ibbi waatoon nañ dëkk bi nit ñi delluwaat ci seen soxla yi lan moo changé si diggante bi ndax Gambie ba tey te yuñ Gambie everything is normal politique baa ngi takkarnaas ñëpp a ci kawam xanaa key nit ñi ñoo bañ a génn mais Sénégal demoon nañ bépp ibbi daa ibbiwaat dëkk bi wala ko soxla ñu tëjaat ko nii lan moo xew ci diggante bi. waaw euh, loolu monsieur Diouf dinaa sawar pour tontu ci ndax loolu question boobu la askan wi yëpp posé question boobu la askan wi yëpp di daal di ba demoon na sax ba suñu mbokk chrétien yi euh, daal di def ab communiqué nee na ñoom dañuy daal di rek euh, màggal li nga xam ne moo di vingt 24 décembre maanaam mooy Christmas bi ndaxte faaw ñu màggal ko ndax yu bëri amoon na fi. Euh, màggaluñ ko dañ ko bàyyi woon ndax mbas mi waaye euh, gis nañ fi ci biir comme ni nga ko waxee màggal jàll na fi gàmmu jàll na fi ak yeneen yoo xam ne jàll na fi gars yi féete ko au lieu soden ñu toog rek ñu ne dañuy daal di rek arrêté waat loolu yëpp loolu métti woon na lañ ba boo xoolee sax ñoom ñu ngi koy féete si beneen anam waaye loolu li ko waral monsieur Diouf euh, si benn jàngat mooy askan wi dañu de jekk saay rek bàyyeeku bu baax a baax dëgg la affaire yi mi ngi doon wàññeeku bu baax ndax demoon nañ fi ba benn bés am fi ñetti cas kese loolu gëjoon naa am askan wi dañ dem ba euh, fàtte ni corona bi mi ngi fi woon jeexul dafa wàññeeku bañ def masque yi takkatuñ ko raxasutuñu euh, jaxasoo bi ba dem nañ ba état bi si jëm boppam sax moom euh, kii yi mu jëloon ay hôpital yi nga xam ne daf ko daal di defoon ci yenn place yi pour ñuy mën a faj demoon na ba ñooñu yooyu daf ko mujjee arrêté waat kon moom si jëmu boppam moo njëkk bàyyeeku balaay askan wi di bàyyeeku te loolu moo fi am loolu la ñëpp daal di wax parce que boo demoon fële di aéroport euh, bu Yoff mooy aéroport Léopold Sédar Senghor fi nga xam ne moom leen toxal yóbbu jas aéroport boobu benn hangar lañ fa defoon fi nga xam ne dañ fay fajee euh, ñu yore euh, mbas mi waaye bañ demee ba mbas mi wàññeeku foofu yëpp dañ ko tëj kon loolu bañ ko defee askan wi ñoom it daal di gën a bàyyeeku loolu moo andiwaat déclic bi affaire wi déclenché waat Euh, mbas mi bari wat fi ba nga xamne ne na dayo fim nol ndax tay am nañ témé rek juróom ñen fuk ak juróom manam 195 cases lañ am tay. ak 8 deaths lo xamne mësuñ ko am depuis mbas mi tabbi fi ba tay ñu ko am tay. juróom ñet nit ñoo ci ñak seen bakkan tey jii foguloo foguloo tam ah, ñu delluwaat rek ci Westfield dama bëgg ñu Westfield ñëwaat parce que mm. ah, laaj question waa ñu dem Westfield indil ñu waa Westfield rek su ko defee ñu seet gaa yi ay da kebe ñu lay bëggee bu baax ci liggéey bu rafet bi aji bindu ndaw dellu si waat na ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu di seetaan fu ci waaye nekk ci ñeen kon àdduna fekk xatu bopp wala ngalam Ali, apa yang waa suma famille bi yëpp waaw Pa Ousmane ko gisandoo dafa jamono jiñ ko ne dafa mel ni church ah, mass jeex na nit yaa ngi génn si church bi ñoo xamante ne ñoo demoon suñu mbokki christian ñu nekkoon si church bi di ñaan ñu ngi benn benn di ñibbi waaye ba tey rek dañoo gën a dugg si biir ah, xool ñu mën a waxal ah, waxtaan kon jéeg gis ne ko aji bintu mu ngi fokus si Westfield ci church bi church Westfield bi is big waaw Pa Ousmane aji bintu mu ngi foofu noonu ba tey rek ñu ngi wax ne man affaire bi daf ma xaw di di di e di di na timmi waaw su ko defee rek ñu continuer ana waa Brikama nga indil ñu waa Brikama one more time rek su ko defee ñu def analysis yi maag jeeg ndax boobu ba tey rek a wane lii xew ci yeneen place yi moo tax ba mënu ñëw wax ma gémmiñ a ngi xesen te gémmiñ a ngi xesen waaw Brikama nga one more time rek Brikama nag jeeg est ce que ko jagleel gars i mu ne waa Brikama dañ ko nekk di jàppale ak lu suñ ko jàppalee at ba at jeex moom dafa leen doon ci ministre boobu noonu ca biir Kaama am si ministère bi la ko dee defee mu dee fees teg nag ren jii fara ñoom kat yi nekka obviously ni nekka di demee foofu noonu am moom lañ ñoo wan ni xanaa nga indil ñu waa biir Kaama one more time rek su ko defee am balaa ñoo bàyyi waa Gambia ñoom ñu continuer liggéey bi dinañ leen wan all those images separately afterwards each of these productions dinañ leen ko wan waaye waa biir Kaama ngi noonu ndeysaan am Kady Touré moo nekk nonu ak ki nga xam ne mooy Seynabou ñaar ñoo nekk noonu di Korba am euh, Birkama waaw Seynabou moo nekk noonu Seynabou moo nekk noonu Thank you. um, what, what, what, how did you spend your um, New Year's for last year? well noise baa ngi xaw a bari um, I'm going to yi liñ nekk seen na mu ñëw war na mu interview bi xanaa ko ci ñun gars yi mu indi garmi ak aji bi lu ñu I'm going to ñoo déglu ñii ñoom ñu ngi continuer seen mbir indil ñu garmi rek su ko defee mu tàggatoo ak askan bi wala aji bi ñëw na am ñu bayilé rek ñom ñu continuer dañu def fofu seen interview aji bintu dafa melni ni film mu dal dank dank dé aji bintu si mama te xale yi xàmmeewu ma leen ah, ah? ma ne xale yi tey xàmmeewu ma leen ah. doy na waar de. ñoom ñëpp def nañ benn baax. xale yi xale yi moom. ñu ngi busy rek ñu indi Garmi mu tàggatoo su ko defee technicien nga génneel ñu gars yi maxi ma ñu mun a jublu si analysis yi am mun nga ñoo génneel gaa indil ñu Garmi su ko defee mu tàggatoo ak askan bi am Garmi. Garmi ah, ñu ngi lay wax ne rek. Eh, di la sant di la gërëm si liggéey bu rafet bi nga def eh, ba pare tam eh, indil nga ñu indil nga ñu liñ xalaatoon indil nga ñu Sénégal suñ biir néeg indil nga ñu Sénégal si suñ si suñ écran yi di la wax ne rek nga nga wax sa dernier mot ba pare nga tàggatoo ñu bàyyi la ba ci kanam di la wax ne rek kontaan nañ torop ci yow di la wax ne nga góorgóorlu nga jàpp fi nga téye foofu la li ngay def rafet na baax na te sa liggéey rafet na Garmi ñu bàyyi la nga. waaw oh. kay balaa mbaa ñamoo tey kay. mbaa tey ñam tey ñamuma. ñamu la suba laay mais suba dinaa ñam incha allah. <laughs> ñamul la monsieur Diouf monsieur Diouf monsieur balaa may tëj balaa may tëj na sama cameraman wane sama sañte man damaa sañte tey ah, jëlal ci kaw ba suuf gaa gis li ma li ma gis li ma def. gaa yi gis li ma def ah, daa sañte de. gis nga gis nga gis nga li Wah, waaw xale day def lu baax. di koro, di koro isi, di koro isi si yéen rek si waa ak monsieur Diouf gis nga monsieur Diouf lu mu def gis nga monsieur Diouf def ah sama bos dafa mana a mana nak maafi, dah ke bos, ndax bos sa boss sànce na de waaye yow it yow it sànce nga de macha allah tarkalla. kan moo la sànceel nii. ok fii maa ngi bu fashion. bu fashion, bu façon ah, mun nga joxe numéro mun nga joxe numéro su fekkee mun na ne. waaw mais numéro bi këruma ko numéro bi waaw waaw dara bu pato bu pato naa ñu beneen yoon da ngay bàyyi xel nga jël bu pato dina la solalaat ok waaw mais bu façon wóor ma ne gar mi demul gaay sanseel ko dañ ko jox dafa dem jënd liñ toll yëpp demul gaay sanseel ko soo ko joxe ay numéro ah ok sama xaalis la sama xaalis la xaalis la dégg nga wax ji sama xaalis la jox ñoo joxuma dara mais incha allah dinañ ma commencé jox ok euh, ma jàll di tàggatoo mbégte la woon toujours pour ànd ak euh, ñaari euh, ndaanaan yooyu di Sima ak ki nga xam ne rek moo di Pa Ousmane Diouf nee naa ko sama mentolo la moom moom daf ñuy jàngal yemul rek ci boos mais daf ñuy jàngal donc balaa ma leen di bàyyi fii moo doon Dakaaru wan naa leen foire bi wan naa leen fi nga xam ne tamit moo di ci CICES wan naa leen fi nga xam ne tamit moo di VDN bi Euh, ñu ngi taxaw ci diggi xoolu ndakaaru euh, lii la woon 31 euh, décembre ndeysaan huit covid 19 gis nga nuñ ko féetee ndakaaru ak li coow li daan bëri bëri ci at yu passé mais ren daf ni tekki tekkaaral ndax xale yi dunduñu ko niñ ko bëggoon a dundee ndax bëggoon nañoo jëli ay appartement bëggoon nañoo gis seen artiste di leen woyal ñuy dem baali bëggoon nañoo ñu namoon waali bëggoon nañ koo gis ñu namoon Youssou Ndour ak ñeneen ak ñeneen waaye Gambian Talents TV li ma ciy wax rek mooy ñoom seen i wa seen jëf du ànd ak wax dañuy jëf ngeen di gis Euh, télé yi ku ci mën na def man maa ko wax euh, ku ci man li ñu li ñu def nii nga def nga bàyyi wax te dem def yi li nga xam ne ñun def nañ ko ñu ngi Gambie ñu ngi Belgium ñu ngi Amérique ñu ngi fépp ñun yemuñu Gambie rek kon fii mooy télé bu baax bi euh, fii la lépp di xoyam xoyamee fii la loo boo bëggee culture fi nga koy amee boo bëggee éducation fi nga koy amee boo bëggee divertissement muy entertainment fi nga koy amee mënoo koo amee feneen fudul fii ndax ñun ñooy télé bi nga xam ne mooy télé ndaw ñi ndax ñun ñooy télé bi nga xam ne dañuy tàggat boole ko euh, di la jàngal waaye tamit lépp loo xam ne rek ci sa yokkute la dañ la koy defal loolu mooy Gambian Talents euh, TV donc euh, ñoo ngi nii may war a tàggatoo ak yéen di leen ñaanal sama mbokku Gambien si nga xam ne yéen a ngi foofu noonu maa ngi leen di wax I wish you a happy new year bonne heureuse année à vous tous yal na leen yàlla defal jàmm man garmi li wax rek am na am na benn fans man sa fans laa man dama laa man moom faanaa la man Euh, euh, merci beaucoup à vous tous bonne et heureuse année 2021 à la prochaine fois merci beaucoup Gambian Talents TV jaa ngeen jëf au revoir au revoir um, uh, ku koy Mouhamed Mbaye Garmi ñu koy bëggee di ko gërëm di ko santa ci dégg liggéeyam rafet na macha allah xale bu am talent la Baos allez bu am talent la talaayam baax na ñi koy déglu nak, Garmi Gambien la koom ñëpp Gambien la comme yéen comme man dëkk bi ñuy wax Pàncang fa la jógee démba bi ñuy def programme bi Sima maa ngi interview di laaj ñoom euh, euh, euh, Moussa Jinne gars yi yaakaar ne duñ Gambien te fekk ay Gambien lañ Moussa Jinne wax na ko ne buñ foog ne ku waxul salaamaaleykum rek. wala naka nga def oo noo def rek doo Gambia Gambia <laughs> waaye paawul ñun dañ eh, dañ am booda ak Sénégal dafare dañ am eh, eh, soo bàyyee xel soo ñu ne Saalum nga am mm. faana faana yi nga am yeneen yeneen a yeneen a yeneen euh, seen olof day ute ak ñun suñu olof. nga am mm-hmm. euh, kaw euh, soo demee Sénégal ak Gambia benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. te mm-hmm. ku amul maam Sénégal am nga maam Gambia nit ñi dañ war a bàyyi saa su ne rek su nit waxee benn olof rek nga ne mm-hmm. sénégalais la. man amoon na time boo xam ne bu ma dëkkee Paris. bu ma ñëwee fii suma olof dafa ceeñoon mm-hmm. euh, su ma daan wax sax euh, ni ñi sénégalais lañ ma daan foog léegi laa mm-hmm. ñëwaat baat may mingu la gambien yi ak euh, moo tax ma nekk di waxaat olof bi ma deewaat waaye tey mm-hmm. yàlla dafa def sax gar mi sénégal la nekk fa la nekk di dem school si université bi he is an intern fii si Gambian Talents moom ak ñi ngeen gis ni yëpp ay interns lañ ñoo xam ne dañ ñëw ñu leen a jàngal métier bi fii Sirifo Faye mu ngi foofu si Basse ay of dina dugg si su ko defee mu waxtaan ak askan bi moom boobu ba tey ah, mu ngi doon jéem a dugg moom tamit waaye mënut a su dee Sirifo dugg si na rek technicien at any point mun nga ñu koo indil ah, waaye balaa Sirifo di ñëw rek dafa mel ni Sirifo dugg si na Sirifo ini mbaara. ini ba Ousmane. yes Basse be ñaadi le ite be Basse. be expect kan a ah, mbe basele fenne man soto ja walantine yajele natalo tano le fango to mbe lori woto le fango still now we cannot have anything mi yalon ko sa tano media sol fango jama lebi jang nte ah, bonyolu aning oda media sol mbele bi jang but yes still now niko niko lopitano to je lopitano mu e ka finde lopitano to you are trying to get the first baby of the year itata wala kapyo ha ndara wala kapyo but unfortunately amam possible no okay. because kabrin uh, kabrin 12 molbe lorin jang up to now kabrin uh, fani mbe nyinte bomi don still now we mm. cannot have anything you know man penso no molbe mintano la mm. so after the doctor ol fona rafa mole pour moleta eh, naketa nyaaw nyaan janning a uh, somanda tema nin ko ku bije be mol update la le pour sina pour yena handing over ke mm so ah, wala ni pour pour dinding o me alon ko wala wulu folota fani kono fa ko ko basele bari um uh ah. sai ne ka ke base new years ani nyinang um mune be keri nje a uh, nyinang min be keri den right now base kono um ah, sa fo coming uh, ah, molman finti molman tona molman finti a dalta kala nyaming because of ñing coronavirus o fana e kujamal le fana a e kole andi sate o kono fang a anata ke fana sate o fana e, e fondin kewle bata doti mi ya lon koy delta tala la kuol kele daminto ndata wol betole bari motije moti hani dulato so bengol ka kenun tol mu nekk kenun je alkatale dong musico ye play ya jumpa wala alkanaji ka pakom wala mol ka house party leke ye be nyofi suwol kono ye party ke ka kenun nyaadi le a uh, ndalta pour ka ben dulal le to comme kata patil la ten a uh, ka new year celebration oke a uh, ka ben dulal to anin ka jomboyol fananke je dolbi je se eh, kankurangol city dol bi jese zimbal city ah a komi momon i dalta kamin ke num je a wo sifalte bari nyin silo dal no fe manke no jang fe manke ja because on tara dulal bele to jang labanta loptano le no den a loptano fankono darta woto le kabrin 12 mol de lorin singola yet still now mol man fen fen soto no woto fanan am ay mehente jakal president o wona basse amam me almost one week ayake dia tabi na base ko le fintla ala be hol be fa kan tep bari ñu ya stada mon man finti eh, no wo fon en wo fon en tel jakal indile wo fon en jakal indile ten ko ya jele fon ibi loptan wo fon la sila ba ñu ko ya jele dulabe borindi nyamin ten ko ya jele kunto fon e buka mol la fon la kuntum kuntum je sade kono bebe ten kundine ni right now um ten la fatala num fon a e restaurant do le fon be nyaato man sa jan silo kan la fatala jibe la fon fon ba je tarra mol fon nata je because of uh mojama letter on church uh but restaurant yo ka fanyo maybe around one month and nata se keno mil tara church mbe wol la restaurant no konole abara ka ba ke siri fo ila kuma laba mo fo si ma yenyi ni karo so da ede tula si ma ko den la tere if not mu base ya ni mu base mana ba kanete bari yajele silo kambe borin din fo nyame yajele dulabe kideri nyame fo wow ko ngin dem jek dara ne ko fa xew dafa melni ya yeah. ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಮಂತ್ ಯಾ ಎಷ್ಟನೇ ಮಂತ್ರ ila kuma labango sa nze bula ila kuma labango to ah ya na kuma labango komi ntela jero to na jero to komi ya nyin nah, nah, ya, silo ah mol ba je kanne komi ko like um komi ka sankuto nyin jomboy ngaje komi ko mo jama bije they are no more interested on it so ndebole je kandal because on ba je kan fana ya, komi ndefana mbeñi nin kala munela uh, yamira fana mol fana mu tamalal fana munul kana man na nyami walatina kujama fana uh, ye, ye, ye kujama man keno uh, fapareta oh, oh. comme dolong government oñi wala uh, ka fo mu o government malatog ating go, mu yalongo atele marata basela tundola uh, ase oh. ase uh, eh, eh, pasa president o bota jamamme so mm -hmm. ngamira fana pour ke la mool ila muyalon koye télé la alfati ye i ñante contandi la ñu iya watu la ka programme o ke wala ka fen organise muyalon ko uh, ye faya woksol ke ye kuwol ke al to la aka kele faabu ka ke no jang o man dali kela jang mon le fanki la cool ke faye am um, fonding kan komi ye la kankurangol city o ye mm. zimbal city de wala a google teng uh, bari coming uh, uh, governor ten pour ye ku plan ten pour fo ni ngewle fidi pour dawo jomboyol la uh, ma witness ten nana ma je fana nana ma moy fana moba moba fana happy new year happy I mean, new year to you babala bake kono sai ntebe da bari a ɗon ɗe a balluɗe so 2021 ɓe ñaaɗi le ndema ballu folon ndema futa 2021 ɗon ɗon folon uh, 20, <laughs> 2021 kay mom nalo woduntele because of uh, ah, ntemi naka watu mina ni dole fongo ben nanka nyini ka fanyo go okay akonyo go bari jang fente keno la jang ten jambe overla borin le because of coronavirus ko ni ay cool fongo bele mi nyamo kono so bari ikaje ko min gon nammi fo ida man tolla janteng a uh, tenku le be kering tenku be kering because of mol man pindi asake maybe nin cool be kala sama as possible no maybe so man ma fongo la kata fo e ularola. asake maybe fonninkewol findiko nenge ka fogo ɓe la agugol sita nin ka tara e tantagol ko sila silo kan ani la belegol iɓe tara silo ke iɓe dogola maybe o sekeno sama bari ɓe yin suuto min to ten ten ten ten ten kuutige min ɓe bori kan ten kuwo bele ɓe sumoyari baraka bake sirifo thank you very much bake sirifo mbiye konton na mbafuleya ah. baraka bake yakata bake woto fo ñaato Mm-hmm. incha allah incha allah ñu ngi seetaan ñu ngi leen ay bëggee te leen wax ne yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct fii ci um, uh, suñ studio bi si Seattle laa nekk nii waaye of course gis ngeen Sima Haidara Dieng uh, mu nga foofu sa Belgium ñu am ñu mel ni ñoom aji bintu ndaw nekk foofu si Westfield um, Serifo Faye mu doon report nii mu ngi reporté fële sa Basse ñoom na Nabia Sarr ak Ramatoulaye Faye ñu ngi fële ci Baara nga am ñoom Ibrahima Sagna ak ñoom Kadi Touré ak Seynabou nekk foofu sa Birkama Fat Samba groupam bi nag lañ munta am ñoom ñoo dem Sénégal bi foofu moo dee jax sima Aliya nag xal naa dégg tuuti musique foofu waaye Westfield ni ma la ko waxee dañ daan am fireworks gis nga aji bindu lim ñu wan mu ne fireworks amul faral bi waaye bala ñu ñew si analysis yi rek ñu bëggé ñi nga xam ñoo ñuy déglu sima am Ousmane Diamé mu ne happy new year mu ngi ñoo seetaan si YouTube bi ah, ki nga xam moy di Gambia brother yi tamit mu ne happy new year ñu koy bëggé bëggee ah, Bob Jaaj mu ne happy new year Gambia one may Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone we are on total lockdown here in the UK but it's cool to be out anyway mu ne dafa guddi trop si jamono jii nii waaye euh, dafa sedda trop pour na waaye ñoom ñu ci total lockdown Baye Cham mu ne HNY muy happy new year ñu koy bégee Yellow am mu ne happy new year Gambia my people my beloved country ah, Bunashi Uh, moom dafa retraite message am bi Thierno Cissé mu ne happy new year to everyone ñu koy béggee bu baax a baax a baax ñoom ñu ñuy seetaan foofu ci um, uh, uh, YouTube ñi nga xam ne ñoo nekk ci Facebook bi um, Siramundo Sambali mu ne my beautiful daughter happy new year to you all um, Talala Silla mu ne yes is true kon ñu ngi leen ay yéen ñi nga xam ne yéen ñu nekk di seetaan dañu ñu ñu continuer analysis yi jeeg maa la doon wax ma ne Westfield pétard dafa daan am um, fireworks last year rek eh, cover nañ ko and it was like that very beautiful um, Fansamba fa nekkoon ren ji there is no fireworks nit ñi ñu fa but very few people the same thing Birkama ST Birkama booyo moo fa daan tëgga dégg nga xale bu jigéen bu waaji di um, interview noonu until this minute ST performut dafa mel ni sax gars yi ci mbedd mi lañ nekk it look doesn't look like ñu ci mini stadium bi baara ñoom Nabiya Sarr wan nañ ñu mu ngi mel ni bàmmeel dara nekku fa lu ñaar ñetti nit ñooñu ñu gis ci mbedd bi wala ñu toog ci débiteri bi um, the same thing with um, Serifo Faye mu ne dem na si lopitaan bi pour ñu dalal ndaw yi wala xale bi nga xam ne mooy njëkk a juddu si at mi foofu se base ñu def présentation it didn't happen mu ne dara nekku di fa xew ñoom niñ daan béggee mu maa fàttali ñun biñ nekkee Parafeñe dañ daan defantu house party wala comme ni ko waxee mu ne ñoom dina house party mooy different people wala different groups organize seen private parties at different parts of the country but loolu amul nga dégg mu ne ñu nekk am fële ne am euh, si biir de bi ñu daan génn pour def seen biir ñu génnuñ pour def anything so it's somewhat disappointing but 2021 lan mooy yow si sa gis-gis ci li nga xam ne moom lañ jot a dégg gaay man Pa euh, Ous euh, li ma wax rek 2021 commencé na si bi nga xam ne euh, yan na lépp na commencé na si wéetaay commencé na si nit ñi seen téye seen boppa di xam li corona man noonu laa ko gisee fa mel ni nit ñi dañ dem ba understand the consequence of corona ku nekk toog sa kër waaye ba tey rek suñu waroon nit ñi génn nañ politique. nit ñi génn nañ def ay rally yu mag waaye foog naa ne lu mel ni ñu iya nga soo génnee rally rek rally bi nga def sa politique tax nga génn ñu iya war naa mun a fekk tam nit ñi tam am dara Gambia te Gambia tam war nañ di mun a suñ suñ meeyoo yeeg nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy meeyoo tunda yi wala di nekk gouverneur yi war nañoo mun a bégal seen askan. organise li nga xam ne dina def def fireworks def loo xam ne dina bégal askan bi waaye parce que soo bàyyee xel Europe tey fireworks yooyu yëpp yu baree bari seen yi ñoo ko def ak seen seen seen seen nguur gi moo si dee def organisation yooyu noonu waaye nag ba tey rek jàngat bi nga Dakar loolu ne organise mu wax ne la fi mu noonu mayor bi moo day organise Macky Sall si boppam dafa dee dem ñoom yu sundu dañoo ñëw tëgga def seen biir what you can see Gambia is very different the state is not organizing anything and ah, state bi nag Pao war see war na see bàyyi xel parce que uh, ñi nga xam ne ñoom ñoo la teg si place uh, tey fukki weer ak benn uh, su ñaareel bi fukki weer ak ñaar. Mm-hmm. si at at bi su fukki weer ak benn. Euh, mm-hmm. yaa ngi liggéey. Mm-hmm. bu fukki bu euh, ñaar bi ñëwee wa fukki weer ñaar bi egsee war ngaa mun a bégal sa askan won leen ne ah man de at bu bees bi dugana nga jox leen hope euh, ñu kontaan yëf yi yëpp du politique. yëfi yëpp du du du li nga xam ne politique la war a doon war naa mun a nekk li ñoo delloo ak seen kan war naa mm. nekk ñu mun a jënd ay présent di jox seen euh, seen ndaw yi euh, di ut xale yi nga xam ne dañ dañ amu naka comme SOS ñu organise leen ay things comme yeneen places yi ñu def organise euh, organise dara dem si Green Park and certain places yi nga xam ne town bu nekk daal ñu defaral la sa place bi nga xam ne moom nga yelloo nga def sa nga organise organise bi mun naa nekk si lu yombalute dina waroon a neex politique neex na torop wóor daw ñu laa toppa daw ponda ànda lu nekk war am na time booy tool war nga na a delloo njukkal mooy kontaan loo leen ba dañ war a muy nguur bi muy politicien yi muy képp koo xam ne rek eh, ñoo ŋànka eh, ku nekk bugg a jot si eh, askan bi seen kaddu askan bi seen vote war ngaa mun a war nañoo mun a jàngat lii yëpp euh, jox delloo di waa di xalaatam askan wi di leen delloo luñ yelloo benn mooy soo nekkee président war ngaa mun a euh, delloo askan bi liñ la ñoom ñoo la fa teg war nga leen a mun a delloo lu mel ni ñu iya lu mel ni tubaski lu mel ni dara Euh, parce que ñun dëkki julit lañ waaye dañ bo julit ak christian ñoo ko bokka su julit yi xewlee ñu jox delloo leen su christian yi xewlee ñu delloo leen parce que Gambia benn bopp kenn mënu koo xan ñaar kenn moomut ko euh, ñun ñëpp a ko bokka pare nañ jël politique bi xaw koo wàññi tuuti euh, duga si li nga xam ne mooy développement li nga xam ne moom mooy moo ñor askan bi mooy fexe ndaw yi ñu jox leen response ndaw yi ñu dimbale leen te ñu dimbale ñi nga xam ne suñ organisation waxuma sax Gambian Talents kese ñu mel ni Gambian Talents ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen euh, ñu jox leen doole pour ñu mun a euh, pour ñu mun a dimbale ndaw yi imaginal tey lu mel ni Gambia lu mel ni Gambia laa wax ñu si ngi si 2021 lu mel ni Gambia nga am sa élément ñu war a dem si biir terrain bi war a dem pour wane li xew ci Gambia network di leen bloqué loolu ruslu na loolu isaan disappointment pour euh, suñu askan euh, loolu daw yaram la si si si si génération si at biñ toll ni 2021 nit ñaa ngee dem ay 5G euh, Gambia ba tey ñu ne 4G lañ am ay 3 ji waaye ba tey rek soo génnee rek sa network boo duusee sa téléphone mënuloo cee def dara loolu jara luñ war a jara bàyyi xel la si suñu wàll yi wér gu yaram tam ñu war ko man expectation yu ma gën a am mooy euh, comme ñu ngi 2021 ñu ngi ñaan nguur bi ñun nekkuñ di politique nekkuñ di ŋaañe kenn waaye nag euh, tey ñaax nañ ñu ngi leen a ñaax di leen ñaan ñu seetu euh, wir gu yaram bi mooy suñ health care health system bi ñu bàyyi xel torop torop torop torop pare te ñu bàyyi xel tam ci ndaw yi ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñooy taataan ndaw bi paus lu am solo la Gambia nañ su may euh, nguur gi nañ def seetuwaat seetaat fànna yi nga xam ne euh, dafa dafa dafa dafa am problème ñu suxalewaat ko te ñu bàyyi nag yëf mu nekk politique rek yëf yi du politique rek waaye liggéey tam bokk na ci seet li sa askan bugg a bokk na ci seet li nga xam ne moo war bokk na ci euh, man nag loolu lu ma xawa indil problème la parce que su ma soo gisee si diaspora bi Europe bi fii su élection jotee rek nga dee dégg certain things mo ñoom dinañ def seen debate def seen ay things waaye foog naa ne ah, ñu ngi seet saa su ne rek ah, lu askan bi soxla ñuy seet dem ah, Gambia war naa mun a passé parce que maa ngi seetaan ay Sénégal mi nga xam ne moo ñu jege sax ñoom am nañ eh, comme naka lañ ko waxati sooy dem dang dee fay eh, medical comme medical insurance la yaa ngi koo fay soo demee faju ji étipasen bi government bi moo ko euh, moo ko dee fay loolu yëpp war nañ see mun a bàyyi xel développe suñ boppa euh, Gambia war naa passé fii parce que du dëkk bu rëy ñoñ mbooloo mooy doole na government bi bàyyiwaat xel na gaay def dialogue politique dialogue politique mooy na politicien yëpp toog ñu def dialogue seet lan mooy jëmale Gambia kanam fa naa moo am solo man loolu laa xalaat te loolu laa gisee jërëjëf kàddu gi rafet na yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV spécial New Year's euh, programme ñu ngi leen a wish happy new year yéen ñu ñuy déglu di ñu seetaan ku ci waay nekk ci ñeneen di ko ñi àdduna penku xarku ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet sa am na solo jeeg li may wax rek réew moo xam ne respecté wuñ kilifa réew moo xam ne respectuñ borom xam-xam. réew moo xam ne respecté wuñ ndaanaan réew moo xam ne respecté wuñ seen aada cosaan réew moo xam ne dañuy màttante di reyante di di fuuf si suuf réew moo mudul mu sa dem kanam bugga réew dafa am solo te ñun Gambien si dañ war a jéem jéem bugga suñu réew politique bi nga wax ni moo lëmbe réew mi suba ngoon guddee bëccëg moom la nit ñi jël teg ko si seen xol yi mu feneenku laayu si comme ni ma ko waxee politiciens yi fàlewuñ dara twenty twenty one ñoom rek ñoo ci tekki twenty twenty ñoom rek a ci tekki soo seetee mbir mi school saa ngi tëj xaalis amut moo tax ni ñi génnu ci dëkk bi dem def anything nit ñi amuñ xaalis maalo yi ñoo indi di joxante nit ñi you give people one sack of rice ñaata weer ñu toog nekkul ci dara depuis maaj ba tey dëkk bi dara doxut tourisme a ngi nii dañ ko tëj nothing is happening ana ministre of tourism Amat Bah mu ngi nekk toog fa président Barrow dugg ak génn fu nekk di wax di merloo nit ñi di wax lu ñor ak lu ñor tour bi mu jos jógee nii three thirty days tour meet the people store lañ wax nga dem waxtaan ak askan bi waxtaan ak béykat yi waxtaan ak teachers yi waxtaan ak different people in different stakeholders am ñu joytul na wax na seeni problème nga déglu leen waaye not pour nga dem di def say politique nit ñi di toog ñu naan five hundred youths dugg nañ NPP three hundred youths dugg nañ NPP waxi NPP si boppam la président bi warta wax fii bàyyi leen askan bi ngeen a nax Violent as askan bi ngeen a nax politiciens yi yëpp yéen rek yéen a nekk di def seeni mbir teachers yi ñu ngi toog all along all of a sudden ñu ñëw change things di leen force ne nañ dem school tëjoon nañ fi school yi I take you back fàtte xeju fi I take you back March 17 lañ declare the first coronavirus case in the country bi moo xew président bi si boppam mu ngee bugg ak a génn di dem fu nekk dem Sénégal bi nga xam ne tay boobu coow laa ngi ne cour Sénégal ñu ngi am ay cases every day Sénégal a ngi def ay press conference the president will not eat to this génn dëkk bi dem Sénégal ne dafay dem def ay am ay forum yoo xam ne mënoon nañ koo def online mënoon nañ koo def virtually but he didn't the same thing with am um, uh, naka lañ ko ooyee security force bi mit Gambia, there are security concerns every single day. Went to Senegal, organized a security um, forum. I just couldn't get it. Security sector reform, they know what it. Bobu ban security sector reform, mo am ci dekali. Ndiki demba sima, ndax barki demba, tanje mo xewon, lan mo fa xew, ben jigen lañ ne dañ ko rey. Seynabou Sarr, ñu ne dañ ko rey. Mariatu Sarr non Seynabou Sarr la waaw foog naa bot Sarr dañ ko rey alay jetli ñu ne ku ko rey daf ko dénka xaalisam laaj waa ji two hundred thousand dollars yi bu ko dénka jigéen ju ñu wax ne ku mun a ñafe la kuy daan dooleen jëkkëram réer mu amee benn doomam waa ji amel ko xaalis si liñ wax at the end of day mu laaj ko xaalisam mu mujjee ko faagaagal si li nga xam ne moom la gaay wax investigation sa still on security concerns are too much in the country dara nekkul di dox a big risk but politicians ñu ngi continuer di def seen politics askan bi ñoo war a bàyyi seen xel teachers yi we are not going to school ñu ne dañoo def virtual programmes 2020 lañ leen a wax de fay online télé yi fay local télé yeeg rajo yi xale yi tooguñ kenn dégluwut anything nobody heeded to his advice heeded to his advice kenn the leen xale yi nekkuñu woon di the déglu they were going about their business university we take. tertiary institutions, we take. We shut down the whole education system know, until this minute kids are going to school virtually and I know it applies the same way to you guys You take a, ibbi assess situations eh? assess Gambie jël xaalis bu bëri si ma def ko ne dañoo def quarantine ku ñëw ci dëkk bi ñu ne dañ la quarantine di spend millions of dollars on this on food on hotels ak yenn yi munuñ koo def munuñ ko woon a sustain wax naa leen ko fe soon na defuñ ko éventually li ma wax dañ mujjee def dañ mujjee bàyyi quarantine bi ne ku ñëw nga quarantine sa boppam I told them multiple times it's not sustainable du ngeen ko mun a continuer quarantine bi gaa yi doon def continuer wuñ ko Tunj healthcare workers yi frontline workers yi toog di demonstrate joxuñ leen anything ñu doon laajte ay five thousand dollars bonus wala yeneen leen war a jox ay allowances it wasn't given to them ñu dégg ministre bi wax coow li moo coow ne joxuñ leen seen am am am am am matuwaay yi dañ am ay ghost am employee? ci biir système bi so much corruption going on so much corruption ñu ne dañ tëj jumaa yi ak cooc yi how long déedéet déedéet last eventually ñu ne ibbi nañ ko do people even respect this thing biñ tëjee jumaa yee cooji gaa yaa ngee def li ñoo def yëpp ci biir kër yi kilifa diine ñu doon dem fàtte xeju fi 2021 ñaata kilifa diine rawatina suñ kilifa julli di ñoo fi réer ñoom ñaata corona bi because they were going about di suul niw yi ñu ngi doon dem di takk sëy yi ñu ngi doon dem di wat xale yi moo tax ma ne leen suñu wécciwul ci koy réew mi du gaaw a dem 2021 lañ wax it should be a year with a difference corona dafa ñëw pour jàngal askan bi artiste yi liggéeyuñ ci kan moo ci génnee album end of year bi ñoom ñëpp a daan génnee album est dina génnee ñoom gisul ñoom Big Faa last year so many people Big Faa release na album Vibe Pandora war génne album gisul génnee na est so many of them release albums and have concerts ñoom novels am nañ seen programmes in different places artistes yi Gambien yi ñoom Jaliba Kuyateh doon ci double albums anam ren jii kenn si ñoom génnewul open mic bi mu ngi noonu ñu def jàkkaarloo virtual for the most part there are so many things happening si biir dëkk bi yu bari ñoom politiciens yi rek ñoo ci soog si waaye ak mu munti demee Sima. a lot has happened from the am um, Janneh commission report biñ ko jox président Barrow 2020 la ñoo wax loolu 2020 2019 uh, la woon but it ushered us into 2021 coow li ne pour yëpp Janneh commission report bala ko nguur gi di génnee teg gaa yi ay eh, am ah, sarta ñoom saabaleeg ñeneen yi ñu teg leen ñoom am Isatou Njie Sédé ñene former vice président ak ñi doon liggéey ci nguur gi ñu tànn si ñu leen neex bàyyi fa ñeneen ñi ñuy jox jox leen little bit of warning ñeneen ñi ñu génnee leen ci système bi xew na fi ñu jógee fa TRRC bi is on ci 2020 bi la xew jeeg ñu mel ni Sana Sabally testify na that was a major thing testimony Sana Sabally Gambians cannot forget that testimony um, um, Edward Singade Gambians cannot forget that this happened within the 2020 um, sila la xew major controversy ñu toog TRRC stop dellu si waat stop dellu si waat ñoom ñëpp suñu stopee tuuti rek ameen eventually ñu dellu si waat ba ten lu bari moo fi xew ñu ne constitution bi pare na constitutional review commission constitution bi pare na coow li ne cour président nañ ko tuddi président gazette nañ ko yóbbu nañ ko def first hearing first reading second reading bi balañ fa àgg sax gaay faagaagal loolu ñu spend si over hundred and twenty um, uh, something million of course hundred and sixteen ak li fa des mi hundred and twenty something million dollars boo xam ne spend nañ ko ci loolu mu dem ci dosbin bi barki dee boo jaay ñu indil ñu good luck am Jonathan pour kooku ñëw ne dafa dox diggante bi nañu si politicien ci bàyyi di nax bàyyi di ñu foyee ñoom ñëpp ku si nekk seen interest lañ toppa du interest yi réew bi ndax ñu ngi gis ni ñoo demee they are all coming ci benn twenty twenty gi sima si la NPP juddu muy parti président ak yeneen parti docteur Goumba Touré taxawal na ci parti Bibi Dabo taxawal na ci parti Citizens Alliance si la am am juddu 2019 Moussa Yali Bacili rek moo si sampa parti bon parti yu bari ñoo fi taxaw ci diggante bi am euh, most recent buñ dégg ni am lu parti actually bon independent candidate muy Papa Fall démbala woon seen one year seen six years anniversary Papa Fall di seti Saa Dawda Kairaba Jawara bokkoon si December 30th ñi demoon attaqué State House bi noonu démbala ñu ñu seen sixtieth anniversary waaw ñaan pour yàlla yokk seen leer ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakken muy Njaga Jaañ Lamin Saane ak Alaaji Jaaja Ñas ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi dunda ñoom Baylo ñoom Papa Fall ñoom Banka Maane ñoom Thierno Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoo bokkoon si December 30th aboote coup d'état boobu yëpp ñu leen a mastaw li nga xam ne daloon na leen Papa Fall moomu nag 2014 mu ànd ak ñi ma tuddandi ñu ñëw ne dañoo coup d'état Yaya Jammeh succeeded euh, 2020 Sima gannaaw bi nga xamee ne seeti Saa Dawda la Saa Dawda na àdduna of course ñu bokk PPP last year ñu gis ni mu fa demee parti bi Kallis Court Bibi Darboe dem yoonam Papa Jammeh dem yoonam ñu def li ñoo def biir 2020 gi Papa Jammeh mujjee nañ koo def ambassadeur moom mu nga ne le PPP nag bi mu demee ba yaakaar amut. Ah, moom ah, Papa Fall mu génn ne dafa form dafa taxaw as presidential candidate et Montego la announce dafa taxaw independent presidential candidate yi yëpp xew na fi si 2020 jeeg Yakuba Jaiteh case am ak president Adama Barrow was another thing that happened where she actually won that ñu génne ko as a national assembly member court bi di dem di dem ba 2020 of course ñu mujjee dogal delloowaat ko si national assembly bi génne fa puule bi fa président Barrow tegoon di leen fàttali rek yi xew ci 2020 jéeg ma bàyyi la nga dugg ah, na waar euh, parce que man fi nga doge fi nga koo emal lay wax sax mooy PPP. Euh, PPP mm. di euh, political party bi nga xam ne moo jur moo jur moo jur political party yu baree bari moom moo jur mun naa ne PPP moo jur UDP PPP moo jur lu baree bari su hmm. su PPP demee rek ba war a daanu loolu euh, fo naa de du ndami euh, du ndami ga du ndami du ndami juddu euh, doom yi nga xam ne ñoom ñoo juddu si PPP Saa Dawda parti boobu warta mun a seey si benn parti parce que PPP is among the oldest party and the biggest party jamono boobu te foog naa ne taxawal nañu teete nañu ay thirty years ñu ko naa ne ñu ngi si loxo PPP loolu euh, war nañ ko seegaat xam ne euh, politique politiciens yi nañ bàyyi di mu neex mu ta fu mu neex xaw ma naka la mu mu neex fu tooy mu tax fu fu wow ñu bees loolu lu jara bàyyi xel la euh, gars yi di am seen seen seen vision di am xalaat di am déggu di am taxawaay waaye saa su ne rek politiciens yi ñu ngi leen a war nañoo mun a change seen taxawaay ba nit ñi di leen gisee si di leen baakoo di leen damoo di leen euh, di xam ne lépp lu politicien wax rek ñu ne kuy fen sa dañu ne waxi politicien la ku wax lu ñaaw ñu ne waxi politicien la ku def ñu ne waxi politicien la waaye foog naa ne war nañoo am nañ politicien yoo xam ne euh, war nañoo mun a nañ fesal seen euh, dignity nañ fesal seen wax kaad kaadu yu déggu nañ fesal seen wax yi nga xamne dafa taxaw fana lu am solo la politiciens yi war nañu mëna tok ñu gis benen euh, gaay won ñu nga gis ne ñun dinañ gis benen euh, benen facette budut euh, politiciens yi duñ dee wax diga wala politiciens yi duñ wax di duñ dee wax lele di len di len jalé fofu su ñëwé si ya nga wax ne 2021 2020 si la corona bi ñëwoon ñu suñ kilifa yu bari gaañu soo bàyyee xel euh, ndem si yàlla euh, naka la euh, biri biri bam gaañoo mhm. soo bàyyee xel foofu noonu ñu bari fanaa afta loolu noonu suñ kilifa yu bari dañ gaañu si dëj afta dëj boobu noonu mhm. ngir ñeeney corona bi lañ wax ñeeney feebara pare être bi dafa demoon ba ñu bari suñ ko amaan sax duñ ko dee wax pa aus dañ ko dee nuba so dem nañ be soo bàyyee xel tam diaspora bi Gambia dafa mel ni man lu ma séntu mooy paus diaspora bi su ñëwutee rek Gambia du du neex Gambia du dee yëngatu ndax bàyyi nga loolu xel. Mhm. diaspora bi soo bàyyee mhm. xel ah, su dee eighty ah, hundred a daan ñëw léegi mhm. ay ten percent ah, mun naa ne lu ñëw mu faax mu tut sax forty percent. because majority ñu waroon a ñëw ñu bari ak lockdown bi ak tukki bi ñu bari dañ seen kas flight yi dañ cancel. Mm-hmm. ba Wally Angleterre seen place yi dañ cancel ak suñ boor yi nii mm-hmm. so dafa mel ni tam uh, dañ toolu foo xam ne dem na ba ñun suñ boppa war nañoo mun a bàyyiwaat xel xam ne um, ñun diaspora bi am nañ am nañ importance si Gambia parce que diaspora su ñëwul rek Gambia daf dee mel ni uh, mm-hmm. faya bi mu waroon a am si décembre bi faya mu waroon a am si uh, New Year bi daf dee dem man loolu laa ko gisee diaspora bi ñun munuñoo dem Gambia mënut a dem saa ñun ñun dem saa Gambia waaye Gambia itam mënut a dem saa parce que ñun li li lu baax yëpp Gambia ñun ñoo ko feree indi. kon diaspora bi euh, dafa dem ba tam Paos bàyyi naa xel euh, ñun su nit ñi daan ñëw ñun suñ daan ñëw Gambia gars yi dañ dee kontaan waaye léegi suñoo ñëw Gambia gars yi dañu dee daw. Euh, mm. nañ xam ne rek ñun balaa ñu fee jógee dañ dee def test. mënuloo mm-hmm. dem jamono buñ toll mënuloo dem Gambia te defuloo test. te sooy ñib si tam foog nga def test euh, nañ seen xel yi nañ dal xam ne corona ñun mënuñoo dem ak corona parce que saay boo tesee euh, su defee positif euh, da ngaa toog su defee négatif ngay door a dem loolu lu jara luñ leen war a yëgal la ñu xam ko ba pare Pao suñ li ma jaaxal mooy gars ñu ngay wax corona ñu ngay wax corona di wax corona waaye ak corona bi yëpp suñ politicien yaa ngee mitin ak corona bi yëpp suñ politiciens yaa ngee def li leen neex mm. euh, te euh, suñ demee si yëfi politique si la mm. twenty twenty si la euh, NPP juddu mm-hmm. NPP nag man su ma gisee NPP dama dee wax ne NPP mooy taawi taawi UDP <laughs> lu tax ma ne mooy taawi UDP soo gisee PPP PPP mm-hmm. moo jur UDP mm-hmm. UDP mu jur P NPP. Mm-hmm. Uh, uh, mm-hmm. <laughs> so dafa mel ni N NPP mooy seti PPP waaye NPP UDP mooy baayam. so dafa mel ni man after all lu ma jàngat yëpp uh, dërëm bi génnul gaal. Mm-hmm. parce que dafa mel ni UDP rek moom moo dafa mel ni nga jàngal xale. ba nga bem bem am lisage nga nga ko dafa ber daaraam. man noonu laa ko Euh, te ñi ne ñaari kuy mënuñoo bokk na mbaraka mhm. mooy ne euh, baayam baayam fi mu teg butam foofu la doom ji teg butam kon nag loolu dina xaw a jafe mhm. te ñi ne fi nga toog boo fa toogee nit war la euh, nga toog fa ba mos li fa ne suñ la waree dëjateku day metti mhm. kon dafa mel ni baro ak baayam tam boobu tam si 2020 bi indi na jafe-jafe seen diggante ñoomi neen boobu tam bokk na si eh, yi nga xam ne jàngat nañ ko baaya doom yi jotee ngir politique. Eh, mhm. kooku mooy baayam si politique. mu taxaw eh, baayam taxaw difen ko ne dafa toog five years doom ji tam taxaw séddale ñëpp àddina bi yëpp ne sa kër baay bu tasee loolu doom doom buy dunda doo nangu sa kër baay tas so dafa mel ni ñoom ñëpp ku nekk am na loo seddal sa morom am na loo tekkul sa morom. kon war nañoo seetaat en tant que politicien gars yi defaat coalition toog waxtaan euh, bu 2021 ñëwee ñu dem si guerre bi waaye fu mu ne nii euh, guerre yii nii jaru ko ba pare li ma jàngat si 2021 bi paaw soo bàyyi xel saaga bi saagante bi uñu wante gi. 2020. 2020 bi waaw. Mm. Euh, ba bari na uñu wante. Mm. génnee wante cër. Mm. saagante xasante. te soo seetloo saagante be xasante bi yëpp ñaari political party la mooy UDP ak NDP mm-hmm. euh, loolu tam jàng nañ si dafa dem be euh, yëf yi dafa dem be guerre yi am nañ si diggante ñi nga affaire bi daal dafa dem dafa jaxasoo te yëpp si xuloo bi yëpp mu ngi wóor suñ force lady bi tam xuloo yu bari am na mm-hmm. yoo xam ne dafa wóor suñ force lady bi mm-hmm. euh, am na yu baree baree bari ñu ngi fàttaleku fiw Montego euh, suñ suñ naataango bi nga xam ne mooy Fatou Camara amoon si ay ay jànko ay li ko métti woon si 2020 bi la tam boobu tam bokka mooy Fatou Camara euh, invite invite on first lady bi pour mu ñëw si mm-hmm. programme ba mu génnoon leeral waxtaan si loolu tam soo ko bàyyi xel euh, Pa Ousmane ma bàyyi la nga xuus si côté boobu noonu loolu tam xewoon na si 2020 bi mooy diggante first lady Sierra yoon bi tam Faat kamara. ak foofu xam nga lu nekk li ma dee wax rek jamono dafa dox te ñu war a dox ànd ak moom. te ñun Gambien yi dañ dee nekk in denial ci lu bari. Mm-hmm. te lii it runs across the board. mooy ne sense of nationalism or patriotism wala bugga suñu réew nekkul ci ñun lu bari. that's just the fact and the reality and it's in every sector du ñuy gaaw respect wala topa dara def ko niñ ko war a defee suñ njëriñ rek suñ individual interest ak njëriñ rek lañ dee gis lu ci bari li nga wax nii March boobu beginning of March wala mid March ndoo I think it is around the fifteenth or so because Ben ñaari fan lañ ci teg wala ñetta first case in corona ñu announced ko on the seventeenth of March lañ announce first case in corona in Gambia weekend balaa boobu si la Fatou Camara organise this award bi nga wax ni Heroes Award bi mu commencé wonderful idea ñëpp jàpp si war see jàpp ndax mooy li ma wax ne ñun duñuy far di celebrate walla màggal luñ moom wala suñ ni ñu baax ñi ñu ngi ci lekkanteeg ŋàññanteeg yàqante waxtu bu nekk gëneen vision nan idea la am waaye dafa tombé jamono joo xam ne it wasn't ideal it wasn't practical it wasn't right or real pour mu def ko corona through her platform to the last minute didn't do anything about it ci jamono juju they downplayed it def ci programme at the time wax naa ko man dafa waroon a postpone loolu wala mu fomma ci jamono ci waxoon naa ko it wasn't done falal li nga wax xewee nii mu invite first lady Sierra Leone bi coow li ne cour am of course gars yi def li ñoo def mu ne invite na Fatouba Barrow the first lady of the Gambia I mean multiple efforts made and it wasn't forthcoming first lady bi ñëwut and that was very um, um, uh, disappointing coow li ne cour nag xam nga ñu li ñuy liggéey media bi nit ñi ñoo ci nekka di la toppa nit ñi indi comparison ni ñooy laajte waaye lii waaye lii la lu tax mu war a indi first lady Sierra Leone indi first lady Gambia and like ba mu def ci am setal waaye loolu dafa bari ndax kabudu kabudu am na ci ñii jàppale first lady bi génn saagante bi di saaga Fatou Camara ak ñoñam ñii jàppale Fatou Camara génn fële su ci tibbee fii ñu ne foofu la kële génn fële ñu bari ñu nekk ci online bi di tërërëri di wax wala ni defantu programmes te yooyu bokk na ci li nga xam ne war nañ ko bàyyi 2020 liñ yéene nii so many people in Gambia have turned themselves to be journalists presenters and people in the media just because am nga access to microphone am nga access to computer doesn't mean na dañ war a ñëw ku nekk ak i moo mooy li ma wax rek ku ne want to be an expert in everything fee spécialisé suñ ku ne ñu bàyyee ko lu moom ñu ne ñu jox leen seen cër ak seen gëdda dañoo continuer di suux rek dinañ saxaar rek waaye duñ mos a tàkka te Gambie du dem fenn su ma ko waxee ñu ne lu tax nga wax ko because nga seet ko si jamono jooju ñu mel ni ñoom Baba Ja génn nañ ci di tërërëri di wax saaga Fatou Camara xas Fatou Camara oyee ko ay tur ñi jàppale président Barrow ak first lady bi ñu mel ni ñoom Danso génn nañ ci wax ñoom Alin Saarin different people indil kii bàyyil kële indil Fatou Camara bàyyil first lady bi réew moo xam ne si xuloo ya xeex lañ nekk réew moo xam ne ñuy saagante xasante ŋàññante loolu la ñu jël pride in réew moo xam ne uñu wante sutura la ñu jël pride in ba kañ su bii jeex ñu ekkati bele su bii jeex ñu ekkati bele this is not. Ba uh, Ousmane li nga wax. Euh, mm-hmm. man dama dee wax ne am na lu ñu war a jàngat en tant que Gambien. Mm-hmm. mooy ne euh, tolérance. Mm-hmm. respect. Euh, mbooloo mooy doole. gis ku nekk rek soo fi nga liggéey fi nga fi nga liggéey. respectal sa moroom li moo def. te dañ bari Gambia léegi dafa bari. dafa mel ni koo xam ne rek saf na laamiñ rek yow mun nga wax waaw te e, su yëfi su ma nee Fatou Camara mm-hmm. Fatou Camara liggéeyam laa def mm-hmm. e, prési e, first lady bi lim doon la doon kenn mënu koo ciy ku nekk rek dafa am Fatou Camara liggéeyal na Gambia ba ñëpp ràññee ko first lady bi tam yàlla moo ko fa teg nekk koo xam ne mu neex ñu naxariñu Euh, suñ ne kuy kuy sa first lady moom lay doon mhm. euh, ku nekk rek euh, foog naa ne na ku nekk jox sa moom morom cër ku nekk bañ a xeeb sa moroom rek jaama am ku nekk bañ a miimal sa morom rek jaama am suñ ci mhm. jógee paawus soo bàyyee xel mhm. ci 2020 bi ñu am suñ yi naataango journalist yi nga xam ne ñoom tam dañ génn àddina si accident accident yi bari lool mm-hmm. euh, waa GRTS yooyu noonu euh, ñoom euh, if you can mun nga maa dimbali si tur yi um, wax nga dégg um, fifi fifi um, maa ngi fifi mooy am bo saraxule bi ak something I remember mooy accident bi nga xam ne xewoon na am ba maa ngi naataango nga xam ne ñoom tam ñu si media yi di leen 2020 ñu am nax media bi am naxar sawane sawane waaw sawane euh, mm-hmm. ak xale waaji ku góor ki euh, mu nekka métit bi nga ah, xam ne dal na askani askani euh, di ma lu lu métti la te dal askan yi nga xam ne mooy askani media bi. Mm. dal askani Gambia ndawi Gambia uh, doon dem am accident accident bu méttee méti mm-hmm. uh, boobu tam am na bokk na ci li nga xam ne métti na ndawi Gambia. bokk na mm-hmm. si naxar yi nga xam ne kenn mënu koo faate. parce que mm-hmm. seen liggéey lañ doon def ba yàlla moom seen bakken. di leen wax ne yal na leen yàlla xaarel ajana may leen daw su te mm-hmm. nag suñ ñëwee tuuti rek eh, ba tey rek si wàlli politique bi ñu gis ne suñ suñ papa ñeenay seen maam ñeenay seen seen goro ñeenay seen lépp kooku mooy looye Ousseynou Daabo mm-hmm. eh, gars yi def ñetti fan yi eh, lifin congrès bi ñu mm-hmm. def ni moom man jàngat gi ma si am benn mooy wone ne looya Daabo UDP Eh, seen xol la nekk ba tey munuñ koo génnee munuñoo gisati keneen ku dut moom hmm. munuñoo jël keneen ku dut parce que moom lañ bouga foog naa ne dañ bugga I think de de they are mission mooy ne eh, lawyer Darboe xeex na at least buy benn fan sax dina toog si nguur bi eh, mu nekk président loolu mooy seen dream di wax ne rek am na paos pour leeral am na kan Solomon Jaane mu ngi wax ne lu euh, ñun nekkuñ fii pour euh, pour leeral nekkuñ fii euh, pour pour pour xas UDP or xas NPP we are analysing ñan ñoo dee gën a jotee mooy UDP ak NPP right now ñoom ñooy rival yi nga xam ne ñoom lañ ràññee te loolu kenn mënu koo dindi jamono buñ toll nii political party yi nga dee gën a dégg mooy NPP ak UDP so loolu moom nekk na loo xam ne kenn mënu koo dindi Paa Ouz. so uh, waxuñ saaga waxuñ dara waaye dañ ne rivals yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di uh, am problème right now NPP ak UDP la suñ si jógee rek paus ñu am suñ ndaw yi nga xam ne soo bàyyee lately bari na ndaw yi nga xam ne dañ dee wasin paus si wàlli jigéen mm-hmm. ñu ñàkk seen bakken bugga naa nga wax si côté boobu tam Gambian women life matter waaw um, ba tey ci corona gi. lu hmm. bari la def ci réew mi. Hmm. Gambia bari na fa am corona te xamuñ ne corona la. waaw they've never been diagnosed they've never been tested kenn testud leen kenn diagnostud leen. Hmm. but am na yu bari yoo xam ne mu ngi xew di génn ndànk ndànk thanks to social media. jigéen ñuy ñàkk seeni bakkan ñu ne lopitaan yi. année c'est fact ne lopitaan yi amuñ garab ne lopitaan yi nurse yi and doctors yi and healthcare workers yi can be very negligent ñu bari mer jumtuwaay yi nekku fa pour ñu def seen liggéey ñi mu waree attitude beeg discipline bi nekkut fa amuñ xaalis waaye we prioritize a lot of things yoo xam ne they are misplaced priorities dooree ko ci government bi nga xam ne ñoom la nekk seen responsibility Gambian Women's Life Matter President Adama Barrow Fufula Waruna waroon back because we are talking about reforms We more talk in 2016 through the coalition government and coalition agenda be link provision Gambian si reforms security sector reform uh, uh, criminal uh, naka transitional justice in the TRRC in the constitutional review commission in the jaane commission indi um, human rights commission um, am commission yi nga have the ñu ngi leen on a sa saw institutions ci dëkk bi ñu strengthen leen civil service reform security sector reform different reforms wiki, soppi Lulu, my one agenda président Adam Barrow So therefore, loolu therefore, nit ñi dinañ discipline civil servants police yi soldats si civil service yi yëpp suñu amoon proper civil service reform which include the healthcare workers ndekoon parti li ñoo coow noonu ne suñ demee si lopitaan yi dangaa war a defal nit dara am nit dafaa war a defal liggéeyam mel ni dafaa defal seeko suñ waree ñëw liggéey si duñ liggéey si ba waxtu bu leen neex wala ñu ne dañoo jël vacation wala dem liggéey nekk si seen téléphone yi di def yenn façon liggéey yi if security sector reform really took place if it had really ndekoon duñ toog di wax noonu suñ jigéen yi ñoo wax ne day dee ndekoon teachers yi ak ñi nga xam ne ñu ngi demonstrate wala amuñ that sense of patriotism pour am di zeal di determination di endurance di perseverance pour mun a liggéey ni ñoo def ndekoon dinañ ko doon def ndekoon police ex soldats yeeg ñëpp dinañ mun a have the same responsibility is to protect the lives and properties of the people ndekoon waa immigration duñ nekk ñu dégg passeport scandale beeg yeneen yi people. Do you talk foofu every department you go to in the Gambia da nga am pour rot da nga am pour wàcca fooy jolom janni be any service La, including the lopitaan si démba rek ñu ma sendee na audio boo xam ay audio yi maa déglu kii nettali ne Brikama health center ak yeneen health center ñeneen confirm ko ne soo fa demee jigéen buy bugg a matu kuy bugg am doom dañ laa wax ne ñaari saabu saafuna fuloo foo si woo sambana ñu ne dañ ko fa daan def before time boobu ñu ngi sanga xale yi after nguur gi si boppam gis ne waaw sanga xale yooyu noonu it doesn't make sense wala is a big risk mun ngaa daaneel xale bi ak there are lot of health concerns dañoo pompa xale bi rek jox la ko yow yaa moom nga sanga ko but guess what until this minute according to what is said dañoo laajte ñaari saabu foofu wala soo amutee ñaari saabu yi nga joxe fifty dollars di audio yi démb lañ ma ko dañ ma ko déglu and some other people confirmed it ne not only in Brikama but place yu bari ambulance si lopitaan bi soo waree den lopitaan danga nga am pour génne amin si li yi wax am five hundred dollars pour ñu def ko essence mu dem. te doo mos a gis fu ñoo solee soo leen defe ne benn jigéen a ngay expliqué ne moom dañ ko tongtongal tongtongal tongtongal tong ko ko si five hundred dollars boobu ba jëkkëram dafa am pour dem kër lijjanti five hundred dollars yi ñoo jox leen ku nekk ci mat musoo même ba ki moto nekk ci mat bi mu ñëwee joxe five hundred bi ñu ne amul fenn fu driver bi jaaree pour jënd ak essence dañ continuer straight duggee ci moto bi dem Banjul five hundred boobu si poos yi kan laa dem lan moo tax suñ jigéen ñi duñ dee jeeg lan why won't our women die Taba, bi ñuy jëfee we just finished making a documentary coow laa bari woon rek ak distraction bi ñu bëggoon a xaar ba dos bi setul maak yow def nañ fi programme si tabax ma ne la ne dinañ def special documentary investigate Taba, dem nañ ba interview ñi nga xam ne ñooy indi tabax si biir réew mi biir Gambia Jele ko Guinée Bissau ak Casamance interview nañ jigéen ñi nga xam ne jaay tabax ñi ko distribute maire ko distribute Simankola dañ ko oye. we've gotten them jigéen ñi koo jaay indil leen tabac si boppam wan leen ni mel indil leen ñi nga xam ne ñoo koo jëfandikoo jigéen ñi da si jabari jalibaat piyaate tuuti dafaa use tabac bi ñoom ñëpp ñu laa wax ni mu fa demee ak uh, lu tax ñu ko use liñ leen wax foofu mairie soo leen déggee nga déglu ñii am privy to watch it and critique it pour ñu make certain adjustments so new year bi passé dinañ ko air and mark your dinañ The special sentiments waxtaanaat ci tabaa bi after we play that we premiere that piece ñu def si special review and analysis after we watch it and we hear these people Mary believe ne Taba dafa faj bépp professor we jàngoon ñuy use taba mu leen a rey yëpp ci 2020 bi si la feeñ Taba dates back to over 10 years ago from liñ xam ñun ñu ci door a jot 2020 ñu foog ne tey la interview nañ ay nit ñooñu ñëw ne two years, three years, four years ago lañ ko jëfandikoo ma ne from research bi ñu the a def investigation it dates back to over ten years ago The people do duggee ci dëkk bi didn't jigéen ñi dinañ tee suñ lopitaan yi garab yi nekkul fa jumtuwaay yi nekku fa am Ham am xam-xam bi nekku fa parce que su ma ne xam-xam bi Gambia moo demee noonu everybody who goes to study in under study Gambia for noonu ci schools yi you mostly do theories there are no many practical places equipment yeeg resources yi there are so many odds against you ba doo mun a gaaw a am practicals ba moo tax journalism wala internship yi ñoo def ni muy dox parce que xale yi dañoo ñëw nekk ci university bi nekk ci yeneen tertiary institution yi di jàng multimedia foofu fay thousands of dollars even practicals duñ koy am and moo tax gars yi yàkkamte fu mel ni Gambia tamit depuis jàng métier pour mun a àgg am fi ñu war a àgg si jeeg kon these are am papa yi di réer not only jigéen ñi suñ papa yi di réer suñ mag ñi di réer healthcare system bi basic things munuñ koo def yenn test yi munuñ koo def tabaa bi ma laa wax nii munuñ koo def ñun dokk ne ñëpp including am am am am am the uh, drug service ak ñeneen pour gars yi wax as expert they will not even get into that basic test munuñ koo def yenn am am am procédure si mënuñ koo def di ku si lokki ba lokki soo amee as tuut nga dem Sénégal fajoo foofu wala ñu dem fu mel ni Turquie wala yeneen place wala ñëw Amérique au Europe fajoo fi lii ba kañ laa continuer jéeg waxtu baal ñoo jàmbu si ma bàyyi la nga dugg si tuut. Ah, pa Ousmane comme ni nga ko waxee rek waxtu baal ñoo jàmbu si waaye nag euh, li ma wax rek mooy I think euh, ñun suñ health sector yi war nañoo bàyyiwaat xel ñu ngi si 2021 ñu ngi ñaan di ñaax nguur gi. Uh, ñu seetaan bu baax a baax a baax a baax a baax uh, uh, health care système bi ba pare nag ñu war a pexe di bàyyi xel lan la ñu def sensitise nit ñi si yëfi tabaa bi di ko fexe nag jaral na leen comme yeneen dëkka yu ñoo def ñu fexe def coalition ak um, ak def ay partenaire nekk partnership ak télé yi lu lu mel ni Gambia Talent lu mel ni yeneen télé ak yeneen télé ñu def partnership di di de am programme boo xam ne euh, ba every euh, dafa am twenty minutes sax wala fifteen minutes waaye pour sensitise ni ñi si mbiri tabaay jigéen ñi lu ñoo use ak yuñ dut use sensitise ni ñi si yëfi um, Euh, surtout waali jigéen yi lu ñoo nekk taba bi li moo def damage yi moo def kon naa ne lu jara lu jara bàyyi xel la Gambien yi di ko def su ma si jógee rek euh, Pa duma dem te du ma nuyu suma doom mi nga xam ne moo defar suma kawar bi tey di euh, Fatima Seck kooku suma taaw bu jigéen boobu noonu yan di ko ñaanal rek yan na ko yàlla may borom kër gu baax a baax a baax lépp lim buga rek moom moo ko xam yal na ko ko yàlla defal si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di kontaan naa trop parce que tey euh, euh, su du toon moom tey suma kawar gi ak affaire bi du baax moom moo ma defaral suma kawar bi koom ko même nice euh, def ko brosse yi nag def yëpp makeup bi yëpp moom moo si jaar ba si daf ma doon ruuj comme xale bu ndaw euh, di ko ñaanal rek man dama bëgg nga ñaanal ko paa sa jarbaat la yàlla may ko jëkkër ju seeda xolam jikar ju ko antal euh, jëkkër ji nga xam ne dina am yërmande si moom loolu laa koy ñaanal di wis nag happy happy new suma doom Eh, suma caat eh, di bébé Fatou tam moom mooy rakki Fatima Seck ak moom tam bébé Fatou fi mu munti nekk rek suma doom ji mu si kër maamam waaye maa ngi ko wax ne moom i loves you bébé Fatou I wish you um, all the very best in 2020 2021 eh, sorry Euh, di wax rek ba tey Pa Ousmane ñu ngi euh, ñaax nit ñii balaa ñoo dem ne di ñaax suñ euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan di wax ne mbooloo mooy doole 2021 lañ nekk na gaay ñëw di subscribe na ñaaw gaay ñëw di dimbale Gambian Talents te suñ xale itam wax dëgg nee na yàlla bugga nañoo solu bugga ñoo sanse na gaay yi ñëw di di solal xale yi xale yi di leen fisal li ñoo def parce que dina am time boo xam ne 2021 lañ am waxte Gambia Talents fu mu jëm dafa rëy euh, na fexe gaay di euh, ñëw sponsorship bi ñëw yëf yi ñëw dinañ xam ne Gambia Talents euh, ndey seex la dafa tëddee njaxaanaay nañ bàyyi xel loolu trop trop torop sponsor sentiment so sponsor yeneen show yi nga xam ne ñu ñëw xale itam ñuy leen a solal di leen defaral comme yeneen ni ñoo solalee ñeneen yi Sénégal tey da ngaa gis ne tuuti rek ñu solal la woneel la waaye Gambia ba tey rek ah, lu baree baree baree si wàllu media dañ ko laaj eh, dimbale wuñ kenn te ku solu ñu criticize la eh, ku solu ñu wax te foog naa ne ah, eh, an li fi nii compagnie si itam dañ war di ñëw si media bi tam ñi nga xam ne dañ am business nañ ñëw si media bi ñi nga xam ne ñu ngi liggéey di yaa ngi liggéey loo xam ne bëgg nga feeñ media bi ak nit ñi ñoo ànda media bi du ennemi mi nit ñi media bi du sa noon media bi dala fesal si li nga xam ne euh, moom mooy sa business di fesal sa liggéey di fesal lu baax si yow euh, na nit ñi jël media bi as a good euh, thing buñ gis ne rek media bi ñëpp a ngi rek wala social media nit ñaa ngi saagante nañ xam difference of media professional media house ak ki nga xam ne euh, dafaa def beneen show euh, beneen affaire beneen leneen a leneen euh, parce que am na ñoo xam ne they are very professional loolu mooy seen liggéey soo ñëwee ñu fesal la wonale la won la sa bagage yi wala taxawal sa business daal pa aus loolu loolu war nga see wax bugga naa nga wax si balaa man may tàggatoo nga wax loolu tam maa wax si loolu sa new year's resolution yow sax génn nañ ci 2020 ñu ngee duggal ci si 2021 lan moy sa New Year's resolution. mos naa ba bare di. lan moy sa New Year's resolution. Um, New Year bi santa waaw santa euh man suma New Year man, euh man ko celebrate ak mana Fatima ño fi nek ñun ñaar eh, ak ma jàkkaarloo viewers yi eh, suma New Year bu ma celebrate ma yena ko celebrate a uh, after well, like lose a resolution la 2021 di lan mesti sa resolution lan apa ya rek mau menjekali waaw celebrate nako ak suma comme man waaye ñaan na yalla suma jikar corona bi lockdown ba ko eh, jàppa si fa faal njëga fa faal bu faale hmm. diko ñaanal rek mu yalla bayima ma ak suma borom kër Mhm. yàlla 2021 bi yàlla may ko xéewal may ko taranga ñu bokk ko ñun ñëpp yàlla musal ko si musiba ak bala suñ si jógee rek Paos euh, bugga ñu ñu ñu am yu baree bari yu ñu war a def euh, innovation yuy ñëw euh, programme yuy ñëw ma ma war a ñëw ak beneen facette beneen feem mhm. li ma daan def xëy na dina si ñu nge bugguma tam parce que loo def ñu piraté la am na si lu ma nekka loo xam ne dinañ si dinañ ñëwaat yaatal ko sentiment sootam dinañ ko gën a yaatal si beneen anam euh, dinañ dinañ dinañ ko yaatal yaatal boo xam ne euh, di ngeen si kontaan trop ba pare dinañ ñëw tam indi yeneen facettes yoo xam ne dugga seen biir kër yi di seet lan lan la nit ñi di dundee loolu tam dinañ si ñëw euh, ba pare man tam ñaan naa yàlla ma ma ma ma ma ma ma def lu rëy daal kon nan ni ñi jàppale ma rek xam ne euh, sentiment sooya ngee ñëw yeneen sooya ngee ñëw yeneen sooya ngee ñëw euh, loolu mooy suñ bébét te loolu la ñaan yàlla ñu yàlla bàyyi ñoo ga nañ xam ne nag nañ ñu bàyyi maa yow nag te rek yàlla moo ñu boole ahankay man suma caprice dafa bari pour nga war maa jël di ma indiwaat feneen day métti man yow la xam nga man laa mën a defar parce que man danga maa danga maa danga maa danga maa yàqa ba ma yàqu taay bu ma neex la euh, su ma nekkee si show su eh, eh, ma imagine ma nekk si show yeneen saa ma jóg sax ne damaa naani yow rek laa ko sañ a kon yow Pa Ousmane kenn du yow di la wax ne nañ ma bàyyee yow lu lu woykat bala su ma yàlla buggee na ma bàyyeek yow ju fa joxo baay kontaan nañ kontaan nañ Pa te yaakaar naa ne eh, liñ xalaat yëpp luñ tënka yëpp si Gambia Talents su yan nañ bàyyi noonu rek parce que suñ xool suñ waxee rek gars yi pirate bi day bet day dafa gaaw pirate bi dafa gaaw kay jële Sima kàddu gi rafet na comme niñ ko waxee it's ne a very um, interesting night ah, yàlla def na niñ bëggoon mu demee noonu nag um, jotuta demee noonu partly just because of ay network ak yi rek problème yi Gambia dafa bari te bokkul façon problème yi programme yi ñu yee lañ wax ñu bëggee ambiance bégalante kontaan ñaanalante yàlla not pour ñëw def yenn yi waaye réew mi ni mu demee moo ko laaj suñ reviewé twenty twenty ba pare lan lañ ci war a def soppi doxin soppi jikko yi rafetal raxas xol yi mu set loolu lañ war a def as a people mu dooree ko ci government bi président Barrow was saying it twenty twenty year with a difference. Business is not going to be as usual. That was his slogan in 2019. Business is not going to be as usual. Gambians, let business not be as usual. We need to change our attitudes. We need to change our ways. We need to make sure that we are very dedicated and have that sense of patriotism. Let's love our country. Ninden buga suñu réew di dox ci yooyu noonu. Nañ leen make sure kusineka si war nga def ko. Ku si nga jàpp fa keneen nga bàyyee ko fu mu ne instead of ñun ñëpp we want to be jack of all trades and be all over and try to akimo everything kenn nekk ci dara sima wax na ko ñëpp daw nekk fa ñëpp daw dem fa one thing somebody starts instead of ñu dem start leneen pour complement kooku we all want to jump into the same thing everybody wants to jump into the same thing du dox yóbbuwut ñu kanam kon is very important as a country ñu wecci suñ jikko yi di jàppale wante su nit nekkee ci dëgg wala nit di def dara lu dëgg luy dëgg lu baax lu set lu rafet nañ ko si jàppale ku nekkul ci dëgg nañ ko condemn wax ko dëgg jàppale nit bokk na si mooy nga wax ko dëgg mooy nga teete ko wan ko yoon nañ leen pare jànga as a nation we are not a sophisticated nation ñun we are not very complex te dañ war a sophisticate. di xalaat waxuma ñu complicated but we can be sophisticated we are very simple kii yu bari moo tax konool ka faa junale liñ dee xam luy bari luñ dee lijjanti luy bari luñ dee laajte luy bari lu mata si ñun is not much li àdduna yëpp def problème def ko kasi ñun duñ ko def kasi moo tax ñu jël coronavirus as it is everyone in Gambia for the most part Dore religious leaders, politicians, businessmen, educationists, entertainers, you name it. You see, but it's new corona, you then got You talk to people in Gambia, and like I said, corona, vina, nyulena nyana, yana kufayala guinea. It's in Gambia. If Senegal can take it serious and going through what they're going through, yes, it's in Gambia. Let's take serious what people take serious. We joke about a lot of things. mooy tax ñu dem lopitaan docteur wala nurse war koo toppatoo mu nekk ci téléphone am bi wala mu ne dee ofam la wala dafa génn dem génte wala dem takka au somewhere mooy tax ñuy sàgganee nit ñi ak seen life somebody's parent is ñu war a dem lopitaan wala war a kooku noonu police police yi di nekk seen naka su dul noonu mooy tax suñ police yi di jox nit ñi am nga ñëw ñu break la amuloo license sa license baaxul def whatever nga dankal leen benn dollars ñu bàyyi la nga dem we don't have that sense of patriotism ak yërmande for each other and we need to change this for 2021 Gambian Talents de ñun door nañ waaye saa bu nekk na ma wax leen ko li waaye lu uyoo daf koy nuru ci tur bi ci melo bi ci jikko ji ak ci joma ji we wanna be trendsetters and we lead and that is why we create so many programs human interest stories am eh, um, programmes yoo xam ne daf leen a yóbbu kanam liy njëriñ askan bi that is why su ngeen ñu toppee tay yi nii di ngeen ñu gis ñu ngeen dem ci grassroots level bi fu nekk comme liñ def nii indil leen baara indil leen Basse, Indian Senegal, Indian, Indian Pele. We are doing a lot of grassroots stuff going to the people to give the Kayi Watanak Nyom. They said, Ligai Didef. The indi seeni problème di ko table the pour yéen ngeen gis ko yéen askan bi new set di the new lii lu am solo you see a brand branding new set ñuy So you see the same screen bi on the right side you see a new logo you see a new logo it's one of the things that we are doing 2021 very soon. You will see our website, the new website up and running. The Gambian Talent Radio and the Gambian Talents TV will all be fully functional. We have some plans in place. You have the new co put together. Pour yobu askan bi kanam. Pour jappale, pour make sure na ñu leena jox correct and accurate information. Kon jappale leen New ndax we are a non-profit public broadcasting network whose mandate is to inform, educate and entertain Gambians using talents, complement the efforts of the government and private sector development initiatives. yéen a ñu fi tax a toog yéen askan bi seeni bot la ñuy xoolee seeni noppa la ñuy déglu te seeni gémmiñ la ñuy waxee ma ne seeni bakken sax la ñuy nooyee kon jàppale leen next to your comment section di ngeen fa gis a green button with a love sign in it su ngeen ko cliquer na leen yóbbu to a secure link where you can contribute for us I am am am am uh, uh, pour mun a donate to Gambian Talents promotion ak Gambian Talents TV. amin loolu dinañu jàppale bu baax a baax a baax subscribe then to suñ channel We should be my first time ngeen your topa. youtube instagram twitter snapchat we are on all these places tiktok and linkedin Gambia Talents Promotion My facebook name mun ngeen ñoo toppa ci www dot gambian ay bëggee di leen gërëm leen sant we will be back to different places you only see these teams today right now we have teams that are getting ready tomorrow dinañ in the. New Year's Day proper fresh lii xew toppaleen ñu wanaat leen continue yeeg yi xew Banjul xam ngeen ne Banjul moo ko yor dinañ leen wan Banjul cultural festival bi nga xam ne mu ngi go on électrique di luy xew foofu sa Moscow dinañ leen ko indil during the day time dinañ leen nekkal Serekunda dinañ leen nekkal in Barra at different places, of course, for one and they help Okononuchi Gambia, I mean, uh, tomorrow's New Year's Day, um, at different programs in Hamanyonek they go on for the rest of the new year. So in Semester Avenue program, the Yenan Court of Pakistan, you like it. If you are a semester in Gambia and you want to be featured on Semester Avenue, definitely get your inshallah, you get your Semester Avenue, Magal bégal leen béjee leen yéen suñ mag yeeg rakk yu nekk ci diaspora bi di liggéey di daan doole di moodu moodu di faatu faatu su at mi jeexee ngeen dem seen réew gannaaw nguur gi ñu ne jagleel nañ leen December 15 ba January 15 as diaspora moom moo tax ñu dooree ko commencement yi December ba ci càppaandaw gi um, end of January ñu leen a indil semester avenue from the airport and with other semesters every day wala every week two or three times ñu ngi leen ay leen gërëm happy new year to all of you di bëggee suma jabar mi nga xam ne kat kii ma moo fi nekk jàppale ma ci bagage yi jàppale ma ci liggéey bi sanse bi moo fi jaar maa ngi koy bëggee képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan di bëggee Gambian Talents su dee def nañ leen dara. waaw di jàppale balaa ngaa dog balaa ngaa dog ana suma ñuy présent rek lay laajte. kon présent lay wër. yow mi loo bëgg man su ma président yow dinañ ci wax man xam nga ne man président lay woon man dama bëgg a président nag waaw. dina ñëw yow dama la laaj ñoo dem yow ñu yabi lan nga jëndal madame. waaw. sekere ma wax ko. xam nga yow war ngaa mun a toog tey. du saxaat nga defa yow yaa fi daa xaw a nga ne xam yow borom yow yaay faaw oh, docteur mbëggeel war ngaa mun a. kuy yor de sa xar madame ma wax. dama mun a mbëggeel. kuy de sa xar war nañoo mun a woon nag tey jii nga def ay feem. soo mu wane ko soo paree laaj ko. soo paree laaj ko kuy yor de sa xar man maa ngi ñëw Amérique déglu ko def ko ba mu dégg si boobu. Hmm? kon di bëggee Sima di bëggee képp ku ñuy déglu di ñu seetaan niñ leen ko waxee rek gis ngeen ndaw yi ñuy tàggat ak li ñuy def ak ñoom hmm? yaa ngi laajte ñu nekk Gambia Aida Kebe nekk ci gannaaw technique bi ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax ñoom Moussa Diatta ci njiiti Fat Samba nag moom mi nga xam ne moo jiite xale yi te yàqu fa dara ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di ko gërëm di ko santa ci boot bi mu boot xale yi ak liggéey bu rafet bi nga xam ne mu koo def foofu ci team bi ci Gambia wax naa leen ci gannaaw ne Gambian Talents has opened a new studio and a new office here ci Seattle dinañ bëgg di def ay programmes yu bari fii nii ci Seattle Washington da ngeen ko bëgg di gis dinañ am ay ndaw yoo xam ne fii lañ nekk ndawi Gambia dinañ leen tàggat ci multimédia ci journalism ak ci vidéographie ak yeneen projets yoo xam ne ñu ngi koy def ci office boobu laa nekk nag ci jamono ji am mbégte ak kontante ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm leen sant ngeen suñ team si ëllëg ñu indil leen lii xew foofu ci Um, uh, uh, uh, Banjul ak yeneen place si dëkk bi ñu ngi leen ay bégee di leen gërëm di leen sant happy new years di leen baalu ak képp koo xam ne tooñ nañ ko ci 2020 def nañ dara wala wax nañ dara loo xam ne am um, neexul la ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax a baax kàddu yi di si rafet ci yàlla la lu si ñaaw si ñun la ba beneen jamono jërë ngeen jëf. jërë jëf sant yàlla ba bari thank you very much. ba subaa jàmm incha allah tey